asalaam salaam salaamaaleykum salaamaaleykum ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñëpp leen jox seen wàccuwaay leen ñaan ngeen partagé ko mu yaatu Ee, waaw du leen nuyu yéen du leen jox seen wàccuwaay waaw ah, di wax ngeen partagé ko mu yaatu ah, pour ñu mën a tàmbali waxtaan bi ñu partagé ko yaatal ko ñu mën a tàmbali macha allah ñu ngi leen di ziar yéen ñëpp Uh, uh, waaw soow bi waaw bëggul soow parce que waxaguñu dañ ko partagé mu yaatu nañ ko partagé ku nekk ku dugg rek nga soow soow soow yow mi dugg di laaj soow da ngay fexe ba partagé ko pour ñeneen ñi mën a dugg si waaye bu ku nekk xalaatee sa bopp kenn ku ne yaa ngi bëgg a xam lu ñuy wax acca acca kenn ku ne yaa ngi rappe rappe kenn amul patience kenn ko ne dañ ngi dañ kumpa bëgg a xam waaw dañuy seetaanu bukki bukki moom bu ñëwee rek bu fekkee gaynde di fàdd day taxaw yëkkati ay noppam taxaw waa gaynde moom lu mu fi bàyyi ñu mën koo seeñu waaye nag bala ngay bala ngay bala ngay bala ngay xaar looy sañu ci ci ci ci ci tillu bu tillu gaynde gi da ngay fexe ba da ngay fexe ba jàppale gaynde ci rëbb gi nañ ko partagé mu yaatu ñu partagé ko mu yaatu waaye son son son son patience rek moom am parex parex amu fi du du daayira du yëfi sëriñ leneen tekk rek te partagé mu yaatu léegale moom njariñam rek ak kumpam ak li mu xam rek li waaye du def dara moom dana fexe ba déglu xool lu muy yóbbu wala lu mu fi jëlee waaye xam ba ci xam ba ci xam ba ci xam ba ci taal bi fexe ba ci li ñor mu def ci mat du ko ci def na ci ku ne jàpp partagé te ne tekk yàkkamti yàkkamti yàkkamti yàkkamti bëgg a xam bëgg xam bëgg xam bëgg a xam li xam lan lan la li ñuy wax lan waa gaawal boo ko waa soxna amul kër kumpa xeex bi du xeexu ñëpp ci jàpp na ci ku jàpp ku mënta laay wala mën a partagé xanaa waaye cay Sénégal xam naa ni réew ah ah ah xam naa ne daal du yomb rek du yomb boo nee alaykum ñepp ñew taxaw ne ku ci taxaw yakam ci wa son bi baaxul de wa ñi ngi lay xaar waa gaawal na pe ñu dem na paaje ji ta il kenn xamul fuñ koy lijeent dañ ko partager mu yaatu bon TikTok tay moom dewuma TikTok bariwu leen de tey moom xam naa dangeen a nekk di lekk yàpp waaw tey moom waa làppatoo ni dañuy lekk ganaar tey xam naa moo tax tey moom taluñu Facebook bi rek YouTube bi ñoom ñoo lekk ganaar tey moom dañuy dañuy dañuy sëpp seppi sëpp seppi tey moom xam naa dañuy dañuy mos taalaale taalaale la ñuy mos tey taalaale bu niin bat tey moom dañuy sëpp seppi yëkkati xobu salaat ak poojob ganaar li nga xam ne seen sëriñ si moom la ñuy dundee at mi yëpp bés bu nekk moom la ñuy lekk pooju ganaar ak sëpp seppi tey taalibe yi dañuy sëpp seppi moo tax amuñu jot ci réseau yi tey moom yéen a aaye ko aaye wal sa moome waaw kon di leen nuyuwaat yéen ñëpp rek di leen jox seen wàccuwaay waaw di leen ziar yéen ñëpp tey taalibe yi tey dañuy lekk ganaar de tey taalibe yi dañuy lekk ganaar lekk lax à part que la majorité ne mange wax nga dëgg de bu koy tegi weesu am na ñoo xam ne bu ñu lekk te déwén la ñuy mosaan ganaar moo tax xam naa ne tey moom ñi ngi mos seen ginnaaru sëriñ yi seen gannaaru sëriñ yi tey moom ngeen di mos tey ngeen xam ne lu tax seen sëriñ si ne nong ci kaw toog muy dox tey ku ci xëcc sa poojo ganaar lekk da nga xam lu tax sëriñ bi buy wax nag doo xam lu muy wax doo xam lu muy wax poojo ganaar yi yi ngeen lekk tey ñoom bus bu nekk moom la ñuy reeree ak di ko añe yéen làppatooy taalibe yi ñu fas yéene kon def waxtaan ak yéen tey ci li nga xam ne moom ngeen dégg sànq ñaari làpto yu jubadi yooyu def muy Macky Sall ak a Seck nga xam ne ab Ablaye Wade mooy seen baay moo leen jàngal ak njuut njaaja gi tappale ñu jàpp bis boo xam ne nee nañu bisu julli korite la ci weer woo xam ne nee nañu weer wu bari ay ngëneel la di shahru ramadan nit ñi woor ci bis bu mujj bi nga xam ne moom dajale def ko ñëpp ànd ñu def ko bisu fet muy nekk fet ci jullit ñi nga xam nit ñi dañuy bëggalante nit ñi dañuy dem nemmikante nit ñi dañuy ñaanalante jàmm di jégalante ay àq di tibbalante di jokkalante ay teraanga yu yiw ak di waxante jàmm ak di seetanteeg di nemmukante bis boobu tey te muy seen bis bi di tey ji Sénégal bis boobu ci la Idrissa Seck ak Macky Sall ne ñoom dañuy dem ca ëtt ba ca public ba ca média yi na dañuy wax waxi politique bis bi nit ñi di julli korite Macky Sall ak Idrissa Seck bis boobu lañu tànn ñoom pour def politique loolu képp am jàngat na lii képp buñ ci taxawoon képp lii dong seetlu gi dong mën nañ cee bind thèse pour xamal leen kan mooy Idrissa Seck kan mooy Macky Sall kan mooy Ablaye Wade kan mooy ñoom ñi bokk ñoom ñooñu ñëpp te ñi bokk benn njabot te bokk ay jubluwaay te lu bon dong lu ñuy xëy di wër utuñu lu baax bisub julli korit Macky Sall di ci wax ak sénégalais yi lu muy wax waxi politique ku ñu jàpp ci kaso yeeg ku ñu bàyyeeg ku ñu tëjee kuy bokk élection kuy bokk élection pétrole beeg gaz beeg yooyu yëpp mu toog di ko wax ak sénégalais yi te waxu ko ak sénégalais yi en direct da koy wax ak sénégalais yi en différé bu amee lu muy wax lu ko ñor dëgg dëgg dëgg day dem ca tubaab yi wax ko su amee loo xam ne da koy kokkalee sénégalais yi ak di leen napp ak xoqatal ak di leen wan ne borom fit la ak moo yor doole jeeg day dumawaate ku ku ko neexee bokkoo ku ko neexul du bokk buy xoqatalaate sénégalais yi kooku ci télé làppatoy lay dem waaye buy wax lu ko ñor dëgg loo xam ne fitu dafa dem ca tubaabe la koy waxee moog Idrissa Seck bis bu nit ñi di balonté àq bis bu nit ñi di lekk ganaar bis bu nit ñi di fetu nekk ci bànneex nga xam ne bis mu jafale ci Sénégal ndax Sénégal at mi yëpp du ci am bànneex benn ñaari bis la ci am bànneex ñaar mu tabaski korit yi ci def yëpp naqar lay doon te ñii génn tey di wax muy Idrissa Seck ak Macky ak Ablaye Wade ñoom ñii naqar yi nekk ci askan wi yëpp ñoom ñoo leen ko yóbbe li tax nag ñu def ko ah, def ci bokk ci li tax ñu taamu bis bi génn ñoom ñaar nit wax ci bis bi daf cee bokk ci li tax ñu def ko mooy ñàkk a ak ñàkk wekk gi ñu am jëmale ko ci yéen sénégalais yi ñoom nawloo wuñu leen wegguñu leen jàpp nañ ne ay bàyyi ma ngeen amu leen xel mérité wu leen dara te loolu ñoom loolu lañu gëm te li ñu gëm ko dañoo yàgg seq ak yéen seen askanu Sénégal ay mbir yu bari ñu gis ni ngeen ci taxawee ci taxawaay bu doyadi bu ñàkk fayda ay taxawaay yàlla baax na yàlla leen ëpp doole bu yow rek yàlla leen attewaat ak yooyu taxaw yooyu ngeen taxaw moo tax nawloo wuñ leen jàpp ñu leen comme ay nit ba moo tax bis bi nga xam ne mooy bisu korité ñi di ci xaar lu ne Macky Sall di wax waxi tappaleen di politique boobu Idrissa Seck ñàkk a gi ñàkk a nawloo yi te lu ci bari tamit boo koy xool da ngay xam ne aussi lu jaadu la ndax sénégalais bi moom bu nawlowul boppam amul fulla am faydaam ba Macky Sall yàpp ko wala Idrissa seeko wala keneen ak keneen ba jàpp bisam bi nga xam ne bisu korité la di bis bu muy jaamoo yàlla woor fanweeri ju ñaar ñaar fukki fan ak juróom-ñeent wala fanweeri fan xëy war caa teg bisu bànneex boo xam ne bisu bànneex bu dagan la boo xam ne yàlla ci boppam la ko def loo nga war caa bégal sa njaboot yéen ñëpp ngeen war a am jàmm baalante ak tout ça bis boobu la Macky Sall génn mi yar réew mi fukki at ak benn ak Idrissa Seck ni mu ko seqal ñu yàq réew mi sàcc alalu réew mi bis boobu lañu ñu génn ne dañuy fen ak tappale pour wax ak sénégalais yi ci wàllu politique caaxaan kon xam ngeen ne ñi fi ngeen nekk yéen yéen sénégalais yi may fi ngeen toll ci ay jafe-jafe yi ci dund gu cher ni ngeen def barki dem ak semaine bi ba mën a am yere yu ngeen sol ni ngeen def ba mën a am ganaar ni ngeen def ba mën a am soble ak pomme de terre ak miisu mburu ni ngeen def ba mën a jënd liitaru diw xawma lu muy jar ni ngeen def ba suukar manqué ni ngeen wooree weeru koor gi xiif bi ngeen xiif amuleen lu ngeen dogoo lekku leen weeru yàlla ngeen jaamu yàlla te dund bi cher lool Macky Sall waxu ci yéyu ci yàbbu weeru lumm ngeen di ko woor ak jafe-jafe yi ngeen am Macky Sall yooyu ci yàbbi wuti Idrissa Seck Idrissa Seck ni ñu dénk wàllu xalaat yi ak jëmtuwaay yi nga xam ne ñooy xarale yi nga xam ne moom lañ ko dénk te xalaat yu xarañ yoo xam ne day tax Macky Sall mën a am ay jëmtuwaay yu muy jëfandikoo ngir dundi askan yi mën a yell te mooy économie ak sociale mooy nooy fexe ba koom-koom bi dox ba askan wi tekki ci waaye sociale bi dox ba ndimbalante gi yaatu ci réew kuréel boobu ñu tuddee conseil économique social environnemental nga xam ne moom lañ dénk Idrissa mu waroon caa génn ay xalaat yoo xarañ jox ko Macky Sall mu jëfeekoo ngir askan wi mën a gis seen bopp ci koom-koomu réew mi ak ci wàllu social bi ndimbal yeeg jàppalante yi ñi ci hôpital yeeg ñi feebar ñeeg ñi ñàkk ñeeg ñëpp ba weeru yàlla wii ngeen jënd muy weer mu méttee méttee métti ndax ñu bari ci yéen seen loxo jotul seen ginnaaw ñu ndóol ñoo ëpp ci réew mi amuñu ñuy lekk amuñu nag déggu leen ci sa sekk benn yoon mu yëy yàbbi na xalaat naa xalaat bi jox naa ko Macky Sall bu ko jëfee ngir askan wi mën a am noof laay gi seen dund déedéet déggu leen Macky Sall génn ci benn yoon ci weer wi yëpp dund bu seer bi sukkal su manqué seek ceeb bu seer beeg diw beeg lépp seer ordonnance yeeg hôpital yi déggu leen ba tàyyi Idrissa Seck génn yëy ci yàbbi Macky Sall yëy ci yàbbi waaye bu ñu demee nag ba seen yitte taxaw ñoom seen i bëgg-bëgg mooy njuuj njaaj politique nekk ca kaw donkaase ko yor milliards yi sàcc ko téego bu ñu demee ñoom ba teg seen complot beneen bu bees bu ñu bëgg a indi ngeen nax askan wi demal leen dañuy jàpp bis bi ngeen war a góorgóorlu ba mën a am seen poojub gannaaw ñu génn bi politique seen kaw ay doomeeraam lañu baaxuñu guddi baaxuñu bëccëg waaye nag suñu ko sañee def rek ci yéen la yéen fulla ji ngeen war a am ba taxaw tem contre ñii moo tax ñu yeb leen defu leen ko génn son bi baaxul am na ñoo xam ne seen son bopp baaxul waye gin, waxee ne son bi baax tekkaral giñ tekkaral xaar giñu xaar ni li buñu def démb wakaam ngor yoof taxaw tem te wóor na ma dañ ko tàmbali suba ak gannaaw suba duñu bay bu gën ko defoon Macky Sall ak Idrissa Seck duñu leen yapp def seeni tapale tok team Sénégalais bi bisu julli di wax seeni waxi tapale gi seeni andando gi seeni takaliko gi seeni nappaje jégué gi seeni mbiri goor jigéen gi seeni ñak fa da yo xamne dara yitelu ci ay fayé neen way tok ak akale son son bi baxul de na gaaw na gaaw déglu bu ngeen noppé dem tok bu ko naa suba ana ak bu taalee ngeen ñaan ngeen suba bu yagge ak kon day sonn parce que wax ji dafa wara am lu jur waye du télé ak seetaan fa am lu mo do jur ci ay jikko ak taxaway tem jele fi ni kon buñu amé amee seetlu ci forme bi ci ni mu tëddee ci bis biñu tan né ne dañ ci wax ñom ñaar ñep muy bis bo xamné bis bu ñep yitteel na ci ay julit ñu war ko and war ci def suñu banex ak balante ak ak noddantiku ndax dañoo nuuxle suñu lepp a nuux ndax dund bu cher ñoom gis nga leen koo ci gis ma ngay melli melli ndax lekk lu xaraam ndax li ñëpp bokk boo ko lekkee aakimoo ko noo def sa kanam yi melli melli waaye ñun ñi nga xam ne suñu kanam yi melli melli wuñu suñu poxtaan yeeg suñu ndigg yeeg yëpp dafa noox suñu noox noox yi tey bi nga xam ne mooy bis bi nga xam ne kenn ku ne taqale nga ba am ñaari ganaar yu dee yu deewul yëpp nga mën caa coppate ca pooj ba mos ngir mën a noddantiku ndax ci weeru koor gu metti nga jóge ndax dund bu cher ñu jàpp ci bis boobee ñoom nga xam ne kenn ku ne yaa ngay baadante ak ak jéem a noddanti ko mos tuuti as ndawal bis boobu lañ jàpp ñoom toog ci tere yi di fen ñoom ñaar kenn ku daan yaa ma bàyyi bàyyi ma daal da ngay dugg ci gouvernement da ngay génn ak say ministre dañuy demal naa la jébbal sama bataaxalu tekki sama ndoom ba tànk damay nekk candidat doo nekk candidat euh, prisonnier yi wax yoo xam ne da nga koy xool xam ne ñii ay sawkatu lal dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy Macky Sall ak Idriss Seck ay xëmbalikatu lal lañ saw lal mooy seen métier lan la ñu wax ñu ñëw ci Macky Sall Idrissa Seck moom ay waxam daanaka moom du ma kii amul ma njëriñ Macky Sall mi doon wax nga xam ne moom moo nekk ci bopp réew bi moom moomu yitteel waaye du ma déglu dégluwuma lépp nag li ma jot a dégg dong daf maa doy déglu ma leen parce que man su ma lay déglu dafa am lu may déglu ak lu ma du déglu dégg naa Macky Sall wax ci waxi pétrole bi ñu laaj ko ci mu tontu dégg naa ko mu wax si waxu Idrissa Seck ak gouvernement bi ak ministre bi dégg naa ko mu wax si waxu dialogue bu tudd ci Karim Karim Wade ak Khalifa entre autres may wax ci dialogue bi lima ci xam xala lima ci xam ci dialogue bi lima ci xalaat xam ngeen ko wax na leen ba may wax ci dialogue bi bo mag Sall wax bu ci limi Dias la deg mu wax waxi dialogue ak Khalifa Sall mat na ñaari wer ñetti wer mané baxta limi Dias ak Khalifa Sall li ngi nek leeru dal ci seen kaw bu baax yi ñepp ngeen seetaan ma ma wax ko bind ko lolu lepp nak mi ngi feeñ ndank ndank Macky Sall mi ngi wax wax dialogue 31 astafurlah euh, le 3 avril bi la wax wax dialogue tey mu ñëwaat di wax wax dialogue Barthélémy Dias wax na waxi dialogue lu jiitu Macky Sall ca TFM fa Sall noonu lay doxee loolu lay dund ndax le 3 avril ba ñu naree def suñu manifestation def nañ seen communiqué ne wax nañu général xaw ma la nag lan ba ñu bàyyi suñu ay manifestation loolu dialogue ko indi dialogue kon Khalifa Sall léegi dialogue ci suuf léegi kan moo bëgg dialogue dialogue bi Macky Sall yi wax kan moo bëgg dialogue opposition bi ñoo bëgg dialogue wala Macky Sall moo bëgg dialogue loolu ab laaj la ñaareel bi dégg ko ci ay waxam journaliste bi ne ko waaw boo dialoguee xanaa na ngaa bëgg a def gouvernement d'union nationale ubbi gouvernement bi dugal ci kujje gi mu ne déedéet gouvernement d'union nationale déedéet réew mi dara xewu crise amul dara amul ma am majorité ma gouvernement bi kon gouvernement bi dialogue bi gouvernement union nationale taxu ko jóg kon dialogue bi lu ko tax a jóg ba léegi Macky Sall leen dialogue bi lu tax a jóg de nee na moom dafa bëgg dialogue waaye waxul lan moo tax mu bëgg dialogue leen ngeen dégluwaat bu baax nee na moom pare na pour gi moom moo woote dialogue lu tax muy dialogue nee na réew mi dara xewu fi jàpp ñu journaliste jàpp ñu ay prisonnier politique amu fi ay euh, jàmm gën xaw ma lan troisième mandat yooyu niixu ko kenn waru ko fay wax dara xewul ci réew mi waaye na dafa bëgg a jëlal ko déglu leen bu baax li ma leen di wax réew mi tout va bien Macky la ko wax dara xewu fi jàmm fi am moom mi ngi ngi doxal macha allah lépp ngi dox waaye dafa bëgg a jëlal journaliste bi ne ko da ngaa bëgg kon xanaa da nga caa bëgg a jël kujje gi dugal leen ci gouvernement bi jox leen ay ndomba tànk mu ne wax dialogue waa léegi lu tax muy dialogue bi journaliste bi insisté mu ne ko li tax may dialogue bi li tax ma koy woote mooy man nañ cee waxtaan buñ ci waxtaanee xool ba xam xay na Khalifa Sall man nañ ko cee amnistie mooy jéggal ko ay bàkkaaram ak yëpp ba mën a bokk. ne Karim Wade nag moom nee na bëggul dialogue bëggul amnistie bëggul ñu jéggal ko dafa bëgg ñu saytuwaat atte bi ñu ko atte woon ndax dafa jàpp dañ koo tooñ kon dafa bëgg ñu attewaat ko ngir mën a am dëgg waaye lam ca teg moo neex daf cee teg ne dialogue boobu muy woote képp ku bëgg a bokk ci élection yi sa bokk ci élection yi mi ngi aju ci nga ñëw dialogue nee na ku dialogue wul doo bokk ci élection te nee ku génn dialogue bi sa yaaya aaye nee na ku gedd sa yaaya aaye ku gedd sa yaaya waaye lam ca fàttee teg mooy buñ la bu bu bu bu ku gedd sa yaaya aaye bu yekkee may la xooñ xooñ bi la ci moom la ci tegul dana ku gedd rek sa yaaya aaye waaye cee waroon doole bu yekkee may la xooñ ciy jàng mooy kon Macky Sall moom dafa jàpp ne réew mi moom lañ leen wax yëpp di ko yuuxu naan Macky dafa bëgg a teg réew mi dictature léegi nag wane na ko moom li mu wane ci wax ji mooy réew mi moom moo moom li ko neex rek mooy am ci réew mi ku wax ak moom bokk ci ay élection ku waxul moom doo bokk kon bokk ci ay élection léegi du charte moo koy tànn du conseil constitutionnel moo koy tànn du kenn du askan wi ko bëgg Macky Sall ci boppam mooy xool kuy bokk ak ku dul bokk te loolu xamul nañ ko ci moom waaye feddali na ko tey ci làmmiñam nee na ku jàlle doowul doo bokk ci élection yi Macky ko wala waxu ko dégg ngeen ko wala déggu ñu ne ko waaw kon lu tax nga dialogue ak ñoom mu ne kenn ki ne dafa bëgg ñu xoolaat atteem kenn ki moom Khalifa Sall moom mi ngi xaar ñu amnistie ko moom bañul amnistie ndeket kon ab sàcc la moom Khalifa moom ab sàcc la sàcc bu ñu sàcc sàcc bu sàcc ñu jàpp sa loxo dagg benn bi wala daggaat beneen bi ci sàcc nee nañ ma baal Macky nee na moom loolu la def Khalifa moom ba jàpp ko tëj ko xañ ko ne ko mënoo bokk ci élection moom mi ngi xaar. ma jégal ko ba mu mën a bokk waaye nag na ñëw si dialogue bu ñëwul dialogue moom Khalifa du bokk ci élection yi ma koy ko wax de samay wax Karim Wade nee na moom dafa bëgg ñu àttewaat ko waaye bu ñëwul dialogue du bokk ci élection yi ma koy léegi mooy wax kuy bokk ak ku dul bokk léegi kon. du conseil constitutionnel mooy wax kuy bokk de te ñoom loolu la ñuy wax de conseil constitutionnel mooy décidé nañ bàyyi conseil constitutionnel moom Macky mooy wax kuy bokk ak ku dul bokk ku bëgg a bokk di nga ñëw wax ak moom ku waxul ak moom doo bokk Macky ko wax de tey TFM yéen ñëpp ngeen ko loolu nag ay menaces la. li tax mooy dafa bëgg dialogue fi mu toll nelawatul dialogue bee ko tee nelaw dafa bëgg dialogue bu dialogue wul rek musiba am programme bi njëkk ci programme mi bi jamono yii mooy dialogue dialogue la bëgg foofu laay ñëw ak yéen nag wax leen ngeen def attention ma wax leen lan moo tax Macky Sall bëgg dialogue ñu partagé ko mu yàlla ndax tappale yi nekk il faut que saa su ko defee ñu génn wax leen ne ay tàppale leen lii ak lii ak lii la wax fii ak fii ak fii la jëm lii la bëgg moo tax mu wax lii parce que la nekk ca boobu waxu leen ko de lam bëgg waxu leen ko ndëgg sërëx yi nga xam ne moom lay teg pour que bëgg ñu daanu ci daanu ci moom lay wax waaye la mu bëgg dëgg dëgg dëgg ko nëbb yéen ñëpp wax ko mi ngi mu téye ci boppam loolu nag lañ leen di génne tegaleen ko ci ko taabal ji ngeen xam lan moo nekk ci bopp Macky sax mom neena day dialogue te nañ ñew bu njëkk soo masaan a bëgg dialogue en tant que président da ngay jël bata xal bind ñi nga bëgg waxtaan nga bind leen eh, inviter leen ne leen damaa bëgg ngeen ñew ñu waxtaan doo ca bata xal nga koy def bind leen parti opposition bi yépp ñi nga japp ne war nga waxtaan ak ñoom nga bind leen ne leen damaa bëgg ngeen ñew ñu waxtaan benn waaye damaa bëgg ngeen ñëw ñu waxtaan ci lii ak ak ci lii ñu xam ci leen la ñuy waxtaan ak yow loolu mooy ku respecté opposition ku jox cër ku jéggi noonu ngay doxale waaye toog ci télé yi di waxe bakkan di kucc kuccee ki toog ci rajo yi di fen naan ñëw leen maa ngi leen di xaar mais nit ñi ñëw la ñuy xëyal mais nit ñi duñ la faale kenn faalewu la parce que amoo fulla amoo fayda te da nga yebaate yow Macky Sall kenn du kenn du jaragoog yow ku am fulla Sénégal bu jaragoog yow ñu bàyyi ko ku jaragoog ak yow dañ lay baax yow Macky Sall danga ngaa puas nga maanaam euh, màggatum bukki nga kenn du la jege ñëpp lay daw bépp sénégalais bu ñëw jàllale ak yow sénégalais yi génn ci moom yow ku la jege yàqu ku la jege yàqu te xam nga moo tax nga bëgg la jege da yàqu ba noppi bëgg a ku la jege di jàllale ak yow sénégalais yi daañu ko ko daañu ko diggalee moom ba mu saf saf léegi jamono bi mu naan moom dafa bëgg a jàllale jamono bi mu naan mi ngi taxaw di xaar ku ñëw jàllale jamono bi mu naan dialogue bi dugg ci gouvernement tax koo jóg nee na dialogue bi mën nañ cee waxtaanee parrainage waaw ku fi indiwoon parrainage parrainage bi mu ne mën nañ koo waxtaane ku ko fi indiwoon ba mu ko fi indi est ce que daf koo waxtaane ba mu dugal parrainage est ce que waxtaane ko opposition bi ñëw ànd ci dañ koo mujj dañ koo dañ koo mas a bañ mu forcer leen ko waaw boo forcer nit mbir ci jamono bi mu la arrangé nga ñëw ba jeexal war a dem sa yoon bokkatoo ci ay élection ku dialogue yow Macky Sall ñun amuñu ku dialogue moom dafa jeexal koo xam ne bokkatoo ci ay élection kenn mënatu laa fal mënatoo bokk ci dara yow loo dialogue kon dialogue bi lim ci bëgg bëgg bu njëkk bi te waxu leen ko mooy dafa bëgg a légitimer boppam dafa bëgg jox boppam gëdd ak dayo boo xam ne amatu ko ci réew mi waaye lool mu bëgg a féddali wax leen ne réew mi maa ko téye maa ko man maay ki ci ëpp doole li ma bëgg moo fay am te loolu li ko waral mooy ba ma woowee ngeen ñëw ngeen man ci ngay ci ngay waxtaanal mooy ki nga xam ne da ngeen am lu ngeen seq mais Macky Sall seqatuñ moom leen lu dul ñu organiser élection ci jàmm du ci bokk ñi ci bokk ku ci gañe ñu loolu lañ seq ak Macky Sall waaye amatuñu lu ñuy diisoo ak Macky ndax pare na ci kon bëgg wan askan wi ak sénégalais nag moom ba léegi mu ngi ci làng gi pareegul moo tax mu ne kaa leen ñu waxtaan ki ngay waxtaan mooy ku ci bokk waaye ku ci bokkul la waxtaan moom nit bu ngeen di pencoo da ngeen di pencoo li ngeen seq mais Macky seqatuñu ak moom fal ak fool yi pare na ci mënutuloo mënutuloo falu ci réew kooku li ñu moom donc dialogue bi uti ci lu jëriñ askan wi dialogue bi bëggu ci lu jëriñ ku jéggi li mu ci bëgg mooy joxaat boppam mbub mu bees muy wane ne moom nii kat mi ngi ci làng gi ba léegi ci la bokk ba léegi mën naa bokk ci élection yi ba léegi loolu la ci jublu moo tax muy woote dialogue benn benn teg seen baaraam foofu ñaareel bi mooy li mu bëgg ci dialogue bi mooy féewale ku jëgi opposition bi ànd bi ñu ànd ñii di ko nas di jege ba di dikk la bëgg a jaxase gis na force 24 bi taxaw opposition bi ñëpp taxaw ñëpp signé charte yi loolu ci ko mun a xaaral ma dugg ci seen biir jaxase leen comme ni mu koy defee saa su ne Macky du tabax mukk lu baax waaye ku tabax lu baax mu yàqu loolu moo lay xamal ne seytaane la mandargay iblis la rek du fekk mukk lu ñuy def lu baax mu gërëm ko fu ñu fekk luy luy luy defar Macky da koy daj kon woote bi muy woote dialogue li mu bëgg mooy ñenn ci biir opposition bi ne nañ dem ñenn ñi ne demuñu dafa leen jëm bu ñu deful daal dana am ñu génn ci biir f bi ne nañu dem dialogue am ñu ne demuñu dialogue loolu la ci jublu. dana fay ay nit ci biir kujje gi ne leen dem leen ke seen kujje googee ngeen na fa nañu dem dialogue ñeen nañu ne dem leen ngi ne demuñu ñu xëccoo féewale am ñu dem am ñu toog mu xaajale leen loolu la ci jublu waaye képp ku dem dialogue ak Macky Sall askan waa ji lay xaar askan waa ji lay xool bu fekkee poñet bi la Macky Sall jox nga jël ko du bëgg-bëgg askan wi nga sànni ko fee askan waa lay xaar ñun dootuñu fàtte dara te léegi dañuy vaar yor suñu réseaux sociaux lu fi waay def ñu ngi ci teg suñu bët saa su ko laajee ñu génne ko teg ko tas ko ba Sénégal gépp jot ci ndoom ba tànk dootoo ko fi am dootoo jar dara ci réew mi say njaboot ak ñu fi jar dara léegi moom du ñu may kenn dara dañoo am léegi fayukaay am waxukaay am rajo am rajo am télé dootu ñu leen may dara ñu ngi leen di xaar. mu bëgg mooy tas opposition bi. Anda bi mu leen gis ñuy ànd fi mu toll nii moo ko tiital nelawatul ay balama ma jeex jeexal na tàkk amatul dara li muy wax yëpp waxi kasakasa la waxi sawkatu lan lay wax Macky Sall ay waxi sawkat lan xémbalikatu lan day xémbali ba tooy kat lal gu dem taluñu ko yow nga ne da ngay woote dialogue koy wo ku muy Macky ku muy woo bëgg a dialogue est-ce que wax na leen diw laa bëgg a dialogue ku muy dialogue kan na ko wax na ne Sonko laa bëgg a dialogue na ne tudd Ousmane Sonko ku muy dialogue maa ngi toog di ngeen ñëwee ba dialogue ku dialoguul doo bokk jaay élection ay waaye ndaw Samba kii nag moom kii kii kii kii kii nañ ko tel couche waaye saw lala yi metti na lool wàddi saw lala yi metti na lool nañ ko tel couche cam da nga jëloon da ngaa nga wax Macky da ngaa bëgg dama jëloon nga Idrissa Seck jamono bi Macky toogee naan damay waxtaan jamono boobu ma ngay dàq Idrissa Seck nee ko jox ma samay ndoom ma tàgg conseil économique social jox ma ko ak samay ministère ci gouvernement boo ci majorité da nga sama ginnaaw waaye mënoo ne candidat nga ba noppi nag bëgg garder ndoom ma tàgg yi ma jox kon delloo ma ko da ngay dem wax ne bëgg yow ki bu fekkee da nga dialogué Macky Sall war ngaa mën a muñ Idrissa Seck nekk candidat ngeen bokk benn boo ko yaakaar Idrissa continuer ca conseil économique ba yore ay ministre am nekk ci gouvernement bi ngeen waxtaan dialogué waaye Idrissa Seck yaa ngi tàqali ko Idrissa Seck ci complot bu ngeen teg yéen ñaar yéen a ko waxtaane bu jubóo ko de Idrissa Seck la Macky génne ne ko dellu ci opposition bi pour nga mën a ñoom jaxase f nag exécutif la ak opposition moom la ñuy dessiner actuellement ni daje bi nga dajee ci force 24 bi dafa ñëw di bo di di di di di unifier toute l' opposition contre l' exécutif nga xam ne champ politique bi day am ñaari mbër rek nga ci taxaw ki nekk ci nguur gi ak kujje bi yëpp dañuy ànd taxaw nekk benn Macky Sall lâché Idrissa Seck ne ko génnal soo génnee ñu diisoo nga dem taxaw ci opposition bi ñetteel nekk ñetteelu larron bi F24 bi Idrissa ak Macky Sall mu mel ne Idrissa Seck Macky Sall déggoo ñu fekk ñoom ñaar ñoo teg complot Macky ko génne te Macky Sall moo koy financé pour mu nekk candidat parce que bu ñu naree dem ci élection yi mu nar ko forcé moom dina fexe ba Idrissa Seck dina nekk candidat dina fexe ci opposition yi mu am ñu mu galgal moo tax Macky Sall ak Idrissa Seck ñoo déggoo pour que Idrissa Seck génn dem taxaw ci opposition bi nekk ñetteelu tànk opposition wala ñaareelu tànk opposition bi nga xam ne du ñu am benn opposition mooy ñëpp bokk. waaye Idriss Seck day taxaw moom it woote woote opposition boo xam ne day xalamal Macky Sall waaye di dal ci kaw opposition Macky moo ko nar a finance ñoom ñaar ñoo bokki mbuus Idriss Seck ak Macky Sall ñoo bokk ay mbuus lu leer laa leen wax lu ñu def dañ koo yëgoo ñoom ñaar ci seen biir wax nañ ko boo leen déglu da xam ne ñi réeroowuñu ñi ngi diisoo Idrissa wax na ko ñi ngi jëkk jox ko téléphone fu ne kon ñoom ñaar ñoo teg ndëgg sa def bi pour jaxase opposition bi Ousmane Sonko la ñu bëgg a ndar kepp da nga dialogue dama dialogue idi ñun dialogue wuñ yeen mak da nga bëgg dialogue wol idi ngeen tëju ci palais bi ngeen def seen dialogue idi idi neena ni ci opposition bi ngeen dialogue yeen ñaar fi ngeen d'accordé nga nawé ko premier ministre wala nga wala nga bàyyi ko poste bi yow naka nga amé poste bo jox Idrissa Seck Idrissa Seck ne candidat la képp nga ne ko delloo ma sama poste tan da nga dialogue kon ko dialogue wu li nga bëgg moy ñepp top ci sa ginnaw nga tok ci ba doyal def lu la neex lolu nga bëgg lolu dialogue loolu du am ci réew mi parce que askan wi pare wuñu pour loolu am chaque ci réew mi nanguwu ko bu fekkante ne dialogue bi day nekk dialogue boo xam ne ni ñuy defaree élection yi ba mu baax ñu organiser ko te doo ci bokk nit ñi mën ne waaw waaye dialogue boo xam ne lépp li nga bëgg mooy ñëpp boote ci sa ginnaaw ngay buuma ko buum bi daa iman loolu day jeex jeex na tàkk ndax bu doon loolu doo dàq Idrissa Seck doo jël poste bi mu yore kay waxtaan ak man waaye bul bëgg dara soo àndul ak man loo yar ma nangu kuy waxtaan ak yow naka nga defee Idrissa Seck lii démb ba noppi di woote jalo candidat la nga ne ko jox ma sama la ma la dénkoon kon daal yow kenn warut a nekk candidat kenn warul nekk candidat yow képp yaa ko nekk yow képp yaa mën a yor réew mi yow doogu yaa baax yaa fi am ndey ak baay ju baax yow yaa xam yaa man keneen mënul Macky yaay doomeram waay kii moo doomeram yeewu leen bu leen kenn naxat kall kalle bu leen ñàkk seeni temps focus leen concentré wu leen ci inscription yi ganaar yeeg karité gi bu mu tax ngeen fàtte mbindu mi taxaw leen temm ci mbindu mi fukki fan a ci des fukki fan moo ci des taxaw leen temm suba altine ngeen dem bindu ji massivement fexe ba am inscription pour ngeen mën voter 2024 dem leen bindu ji dem leen bindu ji dem leen bindu ji loolu mooy wax ji waxi kaso kaso yu Macky Sall ji ak Idrissa Seck bu leen ci tardé bu leen ci communiqué bu leen ci wax man dama leen ciy defal waxtaan pour ngeen xam li nekk ci biir te waxu leen ko ngeen gën a a yeewu ngeen gën leen a a moytu ñoom ñaar xuloo wuñu réeroo wuñu ñi ngi diisoo di teg seeni dil ci suuf ndax Macky il a plusieurs fers au feu day passé da dafa bari ay fer bu bii seddee fekk dé ngi tag tal bi mu tal tek ci fer ñet ci fer la gi tek ben bi moy mi ngi waxtaan ak wa PDS Macky Sall mi ngi wax ak Abdoulaye Wade Macky Sall ak Karim Wade wuñu déggo wuñu ci wax Macky Sall ak Abdoulaye Wade ñoy tek seen njuut njaay doye ya Macky yam ci Abdoulaye Wade kër Macky Sall mi ngi wax ak Lamine Thiam Mamadou Lamine Thiam président groupe parlementaire bu wa PDS yi ci biir assemblée bi Macky Sall lay liggéeyal Lamine Thiam maire Kébémer ancien questeur Lamine Thiam mok Macky Sall ñoo massa and ànd depuis Macky Sall nek PDS ba légui ba tay Macky Lamine Thiam liggéeyalul Karim Wad ma ngi koy wax ñi and Karim Mamadou Lamine Thiam Macky Sall lay liggéeyal liggéeyalul Karim Wad na ko Karim xam te buñu demee ba ci kanam di ngeen ko xam li wax jallu muus la Karim li nga bëgg doo ko am Karim Wade li nga bëgg ci Macky Sall doo ko am ndax danga ànd ñu lay war danga ànd ak ay traite danga ànd ak ñu nekk ci sa biir ay Nafi Diallo ay euh, euh, Lamine Thiam ñoom ñu ñëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal loo nas ak ñoom ñu wax ko Macky Sall benn ñaareel bi sa papa bi la jur li muy nas ak a nocci ak Macky Sall yow arrangé motax tax wok sa papa sax ci ni muy négocier ak Macky Sall mu nek yenen problème Idrissa Seck xam na loolu moo mu taxawé benen taxaway bo xamna ne day mel ne ku ak Macky Sall way rew Macky Sall kon Macky amna xéru Lamine Thiam ak Nafi Diallo Lamine Thiam lan Macky Sall amna xéru Abdoulaye Wade bu muy passé Macky Sall amna xéru Idrissa Seck yooyu yëpp ay fer à repasser la yu yoré opposition bi nak moko jaaxal ci ton ndax and biñu and amna am ki nak ay nit am ñu nek ci biir F24 bi. Macky Sall la ñuy liggéeyal am na si waaye ñu ngi leen di surveiller leen xool ba xam fu ñu jëm ñu ngi leen di xool ba xam fu jëm Idrissa Seck Macky Sall ñoo ànd Khalifa Sall mi ngi mun muni sotteegul bu sottee danaa génn fi ne leen Khalifa Sall ak Macky Sall ñoo liggéey ñu ngi wax na ñu ngi wax ñoom ñaar xalifa ci boppam la nekk waaye Macky nee na xalifa Sall Karim Wade nekk bu leen candidat te bu ngeen demul wax ak moom du ngeen nekk candidat kon xalifa Sall Karim Wade seen candidat bokk ci 2024 bi ni ngi aju ci bëgg-bëgg Macky Sall waxoon naa leen fii parce yoon xalifa Sall Karim Wade nekkul candidat du ñu ko nekk ñaan Karim dem na bindo Karim du nekk candidat parce que seen candidat ñi ngi ñi ngi ci ñu wax ak Macky Sall ramal ko sukkal ko maral ko ay tankam pour mu def leen candidat ndax Macky neena moy kuy bok mo koy tan ku dul bok mo koy tan mom Macky Sall li Ousmane Sonko di xef bu su nek ne li dafa wara jeex ci rew mi and ak ñom defal leen campagne Khalifa Sall am ay député yu dul jeex and ak ñom jox Karim Wade ay député yu dul jeex Ousmane Sonko ko def and ak ñom and ngor pour ñu and dem ci assemblée ba diriger ko ñu dem ba ci assemblée ba ñu war ko war Ousmane Sonko

ma ngay joxe ay social yu fi tapale yu kenn xamul atub yalla nga rek maire bu ton ne mairie Dakar mëno ci tek ben projet bu concret bu waa Dakar mëno tek bët fo fuñ la fekk yaangi politique njuuj njaaj bax limi jaar dil ci kaw dil ngeen ne kenn duko wax te ñu andon ci ñu doon fal campagne pour nga fal nga ñew war ñu ana sa papa diw diisoog Macky sal ñi ngi leen surveiller dialogue wuñu tay dialogue wuñu suba dialogue wuñu gannaaw suba daañu dem ci élection daañu ko gañe daañu leen tëj yéen ñëpp tappalekat par force poste bu Idrissa Seck yore nee na da koy bàyyi bu ko bàyyiwul Macky da koy nangu ci moom Macky wax na ko nee na dafa may delloo sama poste bi ministre yi ndax boo àndul ak man nekk candidat damay nangu li nga yore boo mënee toog man doo bëgg dara doo nekk candidat ma jox la ministre jox la institution waaye boo nekkee candidat ma nangu ko loolu la wax tey de bu ko nangoo gum jox poste Idrissa Seck bi kan la koy jox xam ngeen ñu ngi koy ci politique la ne mi ngi wax ak waa PDS pour jox leen ko mais waa AFP bu Moustapha Niasse ñi taxaw di kaas ni dañoo war a am institution Niasse moo nekkoon assemblée ñu xañ ko institution bi jox ko Amadou Mame Diop. ci ndigalu Marème Faye Sall ak Mansour Faye ak Iba Faye ñu jox ko Amadou Mame Diop assemblée bi nangu ko ci waa AFP léegi AFP amatuñu institution PS am nañu institution ñoo yor au conseil des collectivités territoriales ñu nangu woon bi jox ko Idrissa Seck léegi Idrissa Seck day dem demu comp demu bare yëgoo ñu jël ñu jël institution bi ku ñu koy jox am na ñetti candidat yu taxaw ñett benn candidat bi candidat wu PDS la benn candidat bi candidat wu PDS la Macky Sall dig poste Idrissa bi beneen candidat bi waa AFP bu Moustapha Niass ñoom ñoo koy xëccoo pour jël kenn jox ko ko mu nekk institution boo xam ne AFP en tant que parti allié bu ànd ak Macky Sall ji biir Benno Bokk Yaakaar dafa jaadu mu am institution comme ni ko PS amee comme ni ko mas di amee ñoom depuis ñu ànd 2012 ba léegi. te depuis élection yi weesu ñu hmm. xañ AFP institution benn ministère képp la am amul institution alors que Idrissa Seck amoon na ñaari ministre ak benn institution AFP Moustapha Niasse amul institution benn ministre la am foo ma ñaar ñu ngi kaas pour ñu jox leen poste bi institution bi mu ñaar ñetteel bi nag mooy kan. ñetteel bi mooy moom Mamadou Mansour Faye magu Marième Faye Sall Mamadou Mansour Faye moom lañ bëgg a jox place Idrissa Seck mu yor institution bi parce que Mamadou Mansour Faye ba léegi nag jiitagul benn institution ay ministère lañ koy jox ak ay direction léegi dañ ko bëgg a yéega niveau pour mu am dayo bu rëy dañ koy jox mu jiite mu Mamadou Mansour Faye génnee ko ci gouvernement bi parce que alal amna alal ba doyal ñu jox ko conseil économique social environnemental mu remplacer Idrissa Seck moy ñetteelu nit ki ñu wara jox institution bi PS astafurlah PDS te Mamadou Lamine Thiam la gëna a na mom la ko Macky Sall bëgg jox ci turu PDS wala AFP wala kii nga xam moy Mansour Faye magu Mariam Faye Sall lii lépp nag mi ngi dépendre mi ngi aju ci gouvernement bi ñu war a taxawal bu bees bi gouvernement boo nga xam ne ñi naan dañuy rocci Amadou Ba duñ ko rocci parce que Idrissa Seck lañ ko bëggoon a jox gouvernement bi waaye comme jubóowuñu ñoom ñaar Idrissa Seck dafa bëgg a nekk candidat ñu dem ba ci biir ñu waxtaan diisoo na nañ ko bàyyi mu génn nekk ci biir opposition bi pour lëmbee opposition bi pour jaxase opposition moom Idrissa Seck moo tax ñu bàyyi ko mu génn te ñoom ñoo koy financé Macky Sall mooy financé Idrissa Seck mu def nag kaaw Amadou Ba ci biir gouvernement bi gouvernement bi ñu war a taxawal nga xam ne lii négociation Idrissa Seck Macky Sall bi lii may wax nii moo ko téye moo téye gouvernement bi daanu parce que Mansour Faye mom lañu ñu jox ko assemblée nationale bu gagné won Saint-Louis gañewul Saint-Louis mu ñak Saint-Louis Mansour Faye bëgg nañ ko def poste premier ministre mais day flagrant jël Mansour Faye premier ministre moom Macky Sall loolu moom réew mi lay tàkk léegi nag am nañu occasion pour jël ab institution bu mag jox ko Mansour Faye pour defal ko une promotion bo xam day am dimension d'homme d'état parce que Mansour dañ koy construire ñu koy tabax. pour que mu mën a am dayob mën a taxaw laaj réew mi parce que loolu mooy gis-gis bi fipp rek fipp mooy farata gi ku fippuwul rek musibaam li may wax yëpp fipp rek xeex rek def ni libu rek waa Ngor waa wakaam waa yoof barki démb li def démb barki démb xeex rek dee suba ngeen teg ko ci koy teg tey la jeex na suba rek ñu làbbali xeex rek maa ngi ko dégg mu tëkku nag am nañu ay matuwaay ay jëmtuwaay wax yi tappaleen yooyu yëpp dara xeex rek xeex rek dem bindu ci a xeex amul toog moom amul négocier amul dialogue dialogue wuñu waxuñu ak moom journaliste bi xaw ma xibaarkat boobu laaj na ko ne ko loo xalaat ci prisonnier politique yi bàyyiwu ko sax mu wax mu ne ko prisonnier politique amul ci réew ay ñuy taala fi nekk ñuy toj ñu jàpp leen justice dina ci def seen liggéey nee na prisonnier politique amul ah kon ñi ñu jàpp ñu bi ñëpp dañ doon taala ko toj ah d'accord ok mi ngi kanam dina leer. ñu mën a journaliste yi nee benn dili de presse amu fi jàpp ñu fi benn journaliste journaliste yi jàpp ñu kenn ñëpp a ngi def seen liggéey macha allah wa jàpp ñu fi pap Alé jàpp ñu Pape njaay Cere Maxu Mandela nekkul ci kaso bi benn journaliste daal amul tracteur ci réew mi ma allah lépp a ngi dox problème daal amul Sénégal gi Macky Sall yi wax daal bokkul ak suñu Sénégal gi loolu tamit jaadu na foofu mu toog palem boobu dina paaje lépp di ko fa moom li ko xew moom mi ngi àjjana ñun ñoo nekk ci tolof moom xamul lu nekk ci kaso yi Sénégal gi ñu koy wax mu xam ko mooy Sénégal goo xam ne jàppuñu fi kenn tëjuñu fi kenn ñu nekk ci kaso bi ñëpp dañoo tooñ ñu nekk ci biti ñëpp tooñuñu ñoom Bougazelli tooñuñu ñoom Suzanne Camara tooñuñu ñu saagakat yi ànd ak moom kenn tooñu si ñu ànd ak moom di saaga ñëpp kenn tooñu si ñu tooñ ñëpp nekk ci kaso bi ñoom dañoo tooñ Macky Sall Sénégal googu la yore nee na nee na Sénégal gi daal lii a am moom daal lépp a ngi dox macha allah jaajoole amu fi justice bi baax na lépp a ngi dox ku nekk ci kaso bi def loo wëtu def ku nekk ci biti defoo dara ñoom bugaazir yi ñoom defuñu dara sàcckat yeeg reykatu nit yeeg euh, accidenté yeeg mandikat yeeg nappaaykat yeeg trafiquant de faux billets yeeg jaaykatu ñoom ñu nekk seen kër yi jama ko ñëw defuñu dara lu garaaw loolu la Macky Sall wax très bien moo ko wax de. Alaaji Assane Gueye du journaliste bien sûr. boo ko dégloo ni muy posé question nga xam ne kii ab la li muy wax sax ñëwee ko amul sax futur nga xam ne ni lu ñuy seeni cinéma la ñuy def def seeni tappale alaaji alaaji Moustapha Guèye nan la dégg nga ne alaaji moom alaaji Assane Guèye kooku du c'est pas un journaliste question yëpp dañu ko préparé moo tax Macky bu tàmbalee balaa pare sax mu tontu ko fëccoog moom ndax xam na li mooy tontu yëpp dañu ko préparé seen tappale yi ñu nekk la war a baax. nee réew mi ku nekk ci kaso bi rek dangaa def loo wut a def moo xam makee ko wax de ñoom si toor nduur ñi violé ba certificat bi ñëw ne dafa violé ba ñu ci def lépp médicalement ñu am ay preuve si toor nduur yaayu ndaw si di négocier pour joxe xaalis ñu baal ko mu bañ a siiw audio yeeg ñu jox ko ñoom ñu génn na dañuy bàyyi si toor mu ñibbi ndax amuñu ay firnde yu doy bàyyi ko mu ñibbi këram dem korite ji këram ci xale boo xam ne dañ ko sàkku siif ko

ما ñu laaj ko ne ko loo xalaat ci pétrole bi 10 pour cent mu ne Sénégal amuñu 10 pour cent ñu ne ko lu ñu am mu ne am nañu entre 10 ak 20 pour cent kan moo moom loolu mu ne Petrosen moo ko moom te Petrosen Sénégal la ko moom kon Petrosen moom moo ci jël 10 pour cent ndax investissement yi dafa lu te comme amul xaalis ñu jox ko 10 pour cent bu ñu demee nag ba pétrole nag ñu yokk ko 20 pour cent. ñu ne ko 20 pour cent kon bu baree ba bari moom lañ ci am mu ne xanaa ak taxes yi impôts yi ñu ciy fay subhanallah kon daal 80 pour cent tubaab yee ko moom ñun 20 pour cent lañ ci am bu baree ba bari entre 10 pour cent ak 20 pour cent yi ñu fay yi ci tubaab yi di fay <laughs> waaw Macky Sall mi waaw mais kii yéen est que yéen déglu ngeen ko dégluwu leen ko de pétrole Sénégal ba gaz bi 10 pour cent lañ ci may ci code minier bi su yéegee ba yéeg 20 pour cent la ko wax de. ñu ne ko loolu képp képp képp mu ne xanaa ak impôt lempo yi ñu ciy fay buñ ko ci doolee vingt pour cent plus l'impôt yi maanaam kon quatre vingt pour cent yi tubaab yee ko moom téeméer boo jël ci gaz ba pétrole bi juróom-ñett fukk yi tubaab yee ko moom ñaar fukk yi dong lañ ci am ak l'impôt bañ cey fay bi ki tubaab yi fay yóbbu maxee ko wax de subhanallah lii dafa jar bu subaa Macky Sall wut a dund wut a fanaan ci réew mi Macky mooy doomee daam te bon xool suñu gaz ba pétrole bi ni ko Macky def qui moy doomeram un... deug deug deug moko wax de ay dem len ngeen bo Arabie Saoudite dem Dubaï dem Qatar sen pétrole sen gaz ñoko mom à cent pour koy cheikhou bi 80% bi suñu jox bi safaanu la naar yi def moom la Macky Sall def naar dañoo jël li ëpp ki seen gaal seen pétrole téye ko tabax seen réew Dubaay euh, ak Qatar ak yooyu Macky Sall moom jël suñu alal jox ko tubaab bi bàyyee yi vingt pour cent yoo xam ne bu baree ba bare moom lay doon ak ay taxes moo taxaw tey wax ko ñëpp di ko dégg kii mooy dooméram mooy mbaam waaye dañ ko récupéré billaahi dañ ko dañ ko lay Sénégalais lii faalewul sénégalais yi parce que sénégalais yi ñoo amul fulla moo tax Macky yàq ñu li mu def yëpp dafa xam ne sénégalais yi duñ jóg moo tax mu def lu ko neex il faut que ñu jóg taxaw xeex ak moom koor gi jeex na jóg xeex ak Macky Sall dafa jot muy wax kuy bokk ku dul bokk élection yi da ko fi dul fekk moom élection yi da ko fi dul dañoo war a jóg ba élection yi du ko fi fekk bërki chef d'état-major général des armées Cheikh Watt. Bonjour, vous avez dàqee nom noppi nommez ambassadeur comme nous le général Jean-Baptiste Jean-Marie dàq nommé ambassadeur en Russie kooku toog Dakar demul fenn ci tamit chef d'état-major général des armées le général Cheikh Wade daf ko dàq toroxal ko ba noppi nag nommé ko ambassadeur parce que un général de l'armée soo ko toroxalee doo ko bàyyi muy taxawal ndax mën na laa coup d'état il faut nga am ko dugal en général ñoom ñëpp dañ leen di jox poste ambassadeur ñoom général Mansour Seck ñoom généraux yëpp en général kuñ ci mas a rek dañ lay envoyé automatiquement nga nekk ambassadeur génn la réew mi nga xamne do to amati lien ak sa nit ñi nekk ci armée bi wala gendarmerie bi nga xamne dañu am lien de subordination ak yow nga nekkon sen kilifa nga xamne man nga def lolu nek pour nga bañ ñëna def lolu li indi coup d'état ci réew mi yow général dañ lay génn Sénégal def la ambassadeur mom lañ def Jean Baptiste Tine lànk mi ngi tok Sénégal ñu nommé barki démb Cheikh wad mi yoral armée bi dakk bu nek noppi nommé ko ambassadeur mu tontu Macky Sall bindu ko leet ne dama bëgg wax lu tax nga dàq ma ba noppi wala nga may nommé ambassadeur dima yóbbu fi ak fee fenn laa demul tànk waxoo mu lu tax nga dàq ma foofu la foofu foofu la réew mi toll général bi nee na ko déw ma fenn damaa bëgg nga wax ma lu tax nga dàq ma laa bëgg ma xam laa bëgg a xam xëy na dàq ma jël ab dëgg la dàq ma man général de de l'armée nga dàq ma damaa bëgg nga wax ma lu tax nga def ko loolu bala nga may nommer feneen. dalay toroxal ba noppi sexal la tàngalu ambassadeur ne la sori ma ambassadeur moom bu ñu la ko noree mooy génnal si yëpp sori ma bu ma jege li am solo ba am solo ba am solo li ci ëpp solo mooy kujje gi opposition yi askan wi yëpp a ngi taxaw di leen seetaan surtout mbootaay mu bees nii ngeen sos muy F24 force vive de la nation F24 24 heures sur vingt heures 7 jours sur 7 bii ngeen taxawal ba tax Macky Sall tiit ba génn taxaw di wax waxi kasaw kasawam ji na ngeen ci ànd yëkkateendoo tegoondoo waxandoo. doole ji askan wee ko yore ëllëgi réew mi ñu ngi ci askan wi ci Macky Sall de lu fi waay diisoo ak Macky Sall da nga ci ñaaw te da nga ñàkk lépp ndax askan wi ñoo taxaw mu génn ci Macky Sall pare ci Macky Sall pour fal keneen ku ko fi wuut góorgóorlu nag am taxawaay boo xam ne dana la mën a may yow ëllëg nga wuutu Macky Sall bokk ci ñu war a moo gën fuuf nga dem jaay sa bopp Macky Sall mu di la ger ngir nga bëgg a faagaagal ñenn ñu nekk ci kujje gi ñoo xam ne mën nañoo am chance jële fi Macky Sall bokk fexe ba bokk ci ñooñu yaakaar naa mooy gën a nekk farata ak fulla ngay jaay sa ngor sow askan di nangu poñetu Macky Sall xaalisu Macky Sall ngir di ko defal liggéey bu bon ci biir opposition bi ku ko ci def dan ko rëcc ndax askan woon kenn du duutu leen nax seen yelwaan kenn du ko këpp dañuy defante dañuy dañuy fayante ba mu saf sàpp sàpp sàpp sàpp ci zahir nag ak ci baatin askan dañuy xeex yéen ñëpp ni ngi leen surveiller yéen ñëpp na ngeen taxaw képp ku dem di dialogue ak Macky Sall nañ ko ba te bu ñu ko ba rek ci pat dañu koy ba yëkkati kàddoom siiwal ko lépp ni ñu ko xamal lu ñaaw nañu ko génn ba senegal gépp xam ko nañu ko xarab ba dootul jar dara ci réew mi

moom la bëgg a jaxase moom la bëgg a féewale moo tax muy woote dialogue lànk leen nee na dialogue bi jëréw muy yàgg mën nañ ko def ci une semaine di deux semaine xam ngeen ne ki dialogue wul kon ko li mu moom nee na dañ ñëw dialogue waxul li mu dialogue waaye nee na di taf-taf li mu bëgg mooy tas opposition bi àndandoo bi ñu ànd ñu def ko ci local yi mu am lu mu jur ñu def ko ci législative yi mu am lu mu jur moom lay bañ mu am ci élection présidentielle 2024 yi mu loolu lay bañ moo tax mu bëgg leen a féewale opposition bi waxuma tappalekat yi de ñi ci nekk te am ay ambition am avenir gëm seen bopp waxuma gëm ay magasin ki gëm xaalis de am na ñoo xam ne gëmuñu dara dépense la ñuy wëre ki jaay seen bopp waxuma ñooñu waaye ku ci am fulla am projet gëm na bis mën na ñëw nga yore réew mi Sénégal jox na ko te loolu lu ñuy liggéey ci qualité ci confiance ci programme ak ci crédibilité te loolu lépp mi ngi àgg ci sa taxawaay képp ku am projet pour réew mi bul xeeb sa bopp bis mën naa ñëw ñu fal la. loole nag du añ de waaye des koy suuraare lu ñuy waajal la lu ñuy fàggu lu ñuy waajal la loo xam ne kenn du ko improviser waajal leen seen bopp préparer seen bopp jubal dëggal def lu leer séq kook askan wi bis mën naa ñëw yàlla wëlbati askan wi ñu jublu la bis boobee bu ko xeeb waajal sa bopp lu la Macky Sall mën a jox li la askan wi di jox moo ko gën fuuf te bul xeeb sa bopp wala nga jàpp ne doo mën a yor réew mi ëllëg ba tax nga ne ah man da bu jëlul may sonn bàyyi ma dem ci Macky mu jox ma cent deux cent trois cent cinq cent millions ma féewale opposition nga xool alal ja rek na sama yoon nekku ci fekk de alal joojee lu mu bari bari bari bari bari askan wi ànd ak yow ba jébbal la Sénégal moo ëpp alal jooju bàyyil xel ci loolu ndax bis dina ñëw loolu war a am sa jëf ji ngay jëf tey yàqu nit du xeeb boppam li xew suba kenn xamu ko ngelaw luy wëndeelu mën naa koy wëndeelu jublu ci diw ñii xeeb boppam tey ba naa dem encaissé ji Macky Sall defal ko li mu bëgg ci kujje gi moo gën may ànd ak opposition boo xam ne àdduna bi yàgg ba ñu fal ma loolu wedd yàlla la ak ñàkk gëm sa bopp waaye ku gëm sa bopp waajal sa bopp bis mën naa ñëw ñooy la yowa bu ko yàlla na mais kenn mënu ci dara kon faggul préparé sa bopp nit du jaay boppam nit du nekk ab caga dem ca fa ñu jaayee jigéen ñàggoo ne ngay jaay sa bopp ñu lay tëddee Macky Sall tëddee tëddee leen fi nekk da leen da ngeen dem juutu kenn ku ne mu juutal la jox la xaalis nga dem subhanallah moytu leen seen bopp moytu leen seen bopp Idrissa Seck na ko Ousmane Sonko ba opposition yi bu leen wax waxi Idrissa Seck Idrissa Seck Sénégalais yi dañu génn ci mom mok Macky Sall ñoo and maké ko yoni ci opposition bi pour mu ñew jaxase len roubé len ay waxam bu len ko wax jublu len ci li nek andano sen ay manifestation ki ñaxtok li ngeen wara xex yépp ngeen xex ko askan wi jublu nga yeen la askanu Sénégal andal yeen wa opposition yeen lañu andal de na ngeen fexé nak ba baña wor askan sénégalais yi yéen lañu àndal pour que bu bis baa ku bëgg a nekk candidat nekk candidat ku sa askan wi génn voté ba mu des Macky Sall ñu votel candidat yëpp kenn ku ci nekk voté ki la doy bu ngoonee ñu wàññi ñu xam ku gañe ku gañe ñu xam ne kii moo gañe Macky Sall moom du bokk lii mooy li Sénégal bëgg lii mooy bëgg-bëgg askan wi ku ci dox askan wi ànd ak yow ku ci doxul askan wi xeex ak yow

Macky moo ko yónnee ne ko demal taxaw nekk ci opposition bi nekk chef de l' opposition bi moo tax ma ne Macky Sall comme day dialogue waaye waaye na woo chef de l' opposition Idrissa Seck dialogue ak moom Idrissa Idrissa bi mu ne ko jox na sama ndomba tànk na ko woo gannaaw suba bu nangoo ndomba tànk ba noppi na ko ñoom ñaar ñu dialogue na ko ñoom nañ dialogue bu fekkee ñoom dañoo dof di foowee xelu nit ñi ñun dofuñu de ay nit njaay lañu bu fekkee dañoo jàppee ay làppatoo gi ay dof dañuy foowee ñoom ñooy dof yi ñun dofuñu Idrissa Seck nee na mooy chef de l'opposition wax na dëgg waaye ban opposition du bii ñu nekk de du F24 bi du force 24 bi de opposition boppam moom fa mu taxaw moom képp fa mu taxaw fa mu taxaw moom rek fa nekkoon kay mooy chef bi boo taxawee ne man ci laa nekk ne maa chef opposition bi am nga ci droit fonk lu magum jëmm toll Idrissa Seck ñu laayam boobu muy saf yi kenn xamul la cause contre boppam du dijji boobu taxaw na taxaw ci digg marché muusante su mu tubéyam jaaxaan di calal li calal yëpp wàcc ci kawam ku koy tooy mooy xëmbali mooy sawlal bi moom képp na na coolal ba ba xam ku ko yëg maay chef opposition bi bu la neexee tu es le plus gros bu la neexee tu es le plus benn jigéen waru la bañ sama yaay leer bu la neexee toogal foofu di jàbbatu rek ban opposition opposition Macky Sall yaay chef ba wax na dëgg kon koy jàlle ba leen yéen ñaar ñun jàlle wuñu parce que doo suñu chef seen ndëgg sa yi ngeen teg ak di nax nit ñi yooyu ñun dañ koo miin léegi dañuy bëgg a màndi dañuy bëgg a màgg nag dañuy bëgg a fendi léegi fendi nañu kenn dootuñu nax kenn dootuñu nax Mark Zuckerberg la yàlla yónni mu taal xel yi réseaux sociaux yi taxaw groupe whatsapp yeeg facebook yeeg instagram yeeg yëpp taxaw tiktok bi ñëw ne ko danduma nit ñi léegi dañoo yeewu kenn dootu leen cent dix cent kenn dootu leen nax bu soobee seen dof googu ngeen nekk seen façon yi naxaata yooyu yàgg yu ancien yu yooyu nga xam ne dafa démodé léegi réseaux sociaux yi léegi dafa ñëw yee ñëpp nit dañoo yeewu bëgg ngeen a yeewu ngeen nekk fa ngeen nekkoon seen tappale yeeg seen njuur njaaj yooyu seen seen seen seen yooyu ngeen nekkoon yu xeew xam ne mat na fukki at ñaar fukki at yooyu seen tappale Abdoulaye Wade ki Senghor ki njuur njaaj yooyu seen yooyu dafa xeew yi tout, ça ne marche pas il faut qu'on change de méthode innover Le monde c'est un monde virtuel un monde de communication transversale horizontale pourquoi parce que l'église dafa avoir la démocratie de l'information la démocratie de l'accès à l'outil communicationnel L'église qui se nekk da ngaa une télévision qui se biir poche bu njëkk ay nit ñoo am télé di fenn di wax lu des neex teg seen complot élections génne seen ay résultats les résultats nous ñun ñoo koy bureau de vote par bureau de vote par force un ko ci suñu ay PV yéen ngeen nekk fa ngeen nekk di tappale Idrissa Seck Macky Sall restez dans vos anciennes méthodes vous allez voir c'est une ancienne école c'est une ancienne méthode c'est une ancienne façon de xew les gens sont maintenant beaucoup plus

loolu mooy li am toute l'opposition réunie autour donc de la force 24 nous redoubler d'efforts de confiance mutuelle de solidarité entre eux et de concentration sans faille sur les objectifs qu'ils se sont assignés dans le cadre donc de la charte que qu'elle ne connaît que parce que ànd nañ ci ak waa wàllu Sénégal Abdoulaye Wade ñu war ñu ci élection législative yi dem ànd ak Macky jóg daay man c'est fini ndax léegi moom bëgg-bëgg askan wi dafa nekkatul lu ñuy mébét dafa nekk lu ne fàng te lu ne fàng kenn du ko jeex askan wi dañoo bëgg ñu bees ñu leen wuutul ñi fi nekk yor réew mi ci njub ñëpp xam nañ ko loolu nekkatul lu ñuy làmbatul nekkatul loo xam ne dafa soxla ingéniosité pour ñu comprendre ko kon képp ku xamul loolu ba tax ngay njuuj ak di yaakaar wu askan wi am ci peuple ci peuple ci élection ci euh, euh, homme politique yi nga askan wi war googu ngeen war askan wi da ko ba par force askan wi léegi am nañu fulla ku leen war ñu defante yéen ay warkat nit ñoo ci ëpp kon képp ku bëggul askan wi jaamaarloo ak yow fexeel ba bu ko war loo digaalee askan wi sàmm bari na lu ñuy sikk Ousmane Sonko naan dafa am mbooloo dafa am mbooloo dafa populaire dafa populaire réew mi yëpp moo ko poñetiku ni ko ko may du leen lu taxawaay bu constant ànd ak askan wi di leen wax lu leer di leen dig lu leer lu mu xam ñëw wax leen lu mu dégg ñëw wax leen di saafonte ak ñoom lim leen wax ba léegi ci la nekk lu mu gëm la leen di wax lu muy def la leen di wax askan wi gis loolu ci moom ba ànd ak moom mayu leen xaalis yóbbuwu leen màkk moy leen jabar joxu leen lem la ko booleeg askan wi loolu discours la parcours la constance la conviction la projet la c'est pas compliqué kenn ku ne mën nga ko def jéem leen essayer leen loolu moo gën ay milliards loolu Ousmane Sonko li mu am moo gën ay milliards askan wee ànd ak moom moo tax askan wi moo gën ay milliards lu leen ko tey def bu ngeen ko defee dëggal seen bopp gëm seen bopp indi lu innovant fexe ba askan wi am kóolute ci yéen ñu def leen ñu def Ousmane Sonko mais def leen ko pourquoi parce que da ngeen a tàyyal parce que xaalis ngeen bëgg ay poste gu ndomba tànk ngeen bëgg amu leen ambition wala boo ko yëf xëy na mën naa metti mais bëgg-bëgg bi ngeen am metti metti bi nekk ci ginnaaw Ousmane Sonko di ko daj yéen parewu leen pour mu metti te nag lu yomb amut lu baax loo gis rek lu metti mooy yoon wa yoon wa fi jëm moo tax mu metti ci Ousmane Sonko est-ce que pare ngeen pour sacrifice yooyu aussi ku man na def askan wi du ñoom ñoo créé Ousmane Sonko sénégalais yi créé wuñu Ousmane Sonko Ousmane Sonko moo jóg ne hee fii laa jëm lii laa bëgg jox leen ma Sénégal di wax sénégalais di ko déglu ba ñu ànd ak moom Ousmane Sonko forcé wul kenn dafa ñëw def li ñëpp yi waaye def ko ci façon boo xam ne ak jikko ak taxawaay ak njub ak kóolute gum dox ci diggante sénégalais ba ñi Sénégal gépp moom lañu àndal tey moo am majorité ci réew mi. Sénégal yëpp Ousmane Sonko ñu moo fi ëpp majorité lu ko ko dëggu taxaw ak amu lu ko ci fekk fekk ko ci jaayante deg bakkanam ci kaw ji leen ko def yéen li la du leen dëggal sa bopp nag parce que li am solo mooy askan wi wóolu la te askan wi bala laa wóolu da lay à l'épreuve Ousmane Sonko dañ ko éprouvé laata ñuy ànd ak moom yéen ñi kuñ ci éprouvé benn yoon nga onkuñ na may ma patum ndox ma naan xoo xoox naa mënu mënutuma dem loolu la di wax na ko nee na man dama daan tàppale rek bu ñu nee lii saa dañuy manifester ma génn xam nga premier ligne bi ba buuxante da xam nga jaay affaire yu peegar affaire yu marché muusante premier ligne bi day yomb bëtt waaye deuxième ligne bi nag su ma ñëwee gis seer si nga gis waa GIGN nag ñu ne ma xee wàññikul nee na ma ne waaw mais wàññiku pour lan ñu ne ma xee mu kon baax na kon maa ngi wàññiku daal di yore sore sa ndànk ne fees affaire bu yombul udee ko wax ni gis nga de moom nee na da day yore da ñibbi fa askan ñoom ñi gazé ke lakk dema son idi moom nee na damay rocciku moom man xeexuma man xeexuma jàmmantewuma damay rocciku ndànk dem toogi sama kër idée ko wax de Macky sax waxul woon loolu Macky moom dana woon dañ leen di fël dox suñu dox dañuy dugg ci palais bi génn Ablaye police bu ñu taxaw naan ci dañ lay fël Idi moom nee na du fël kenn nee na moom day yéene su rees ndànk piis ko mu piis ko mu ne ko booy maa ngi ñibbi ah xeex leen yéen man dem naa sama yoon mooy ci la ko jëlee dégg naa ma sama papa xamu marché muusante xamu mbëkkante waaw sama life bi la ko musan marché muusante ba loolu ci marché muusante lañ nekk di ak marché mbëkkante ci loolu lañ nekk di parce que loolu la ñu xam muusante ak mbëkkante xamuñu ak njub xamuñu dëggu xamuñu respecté sénégalais yi jox leen seen xamuñu sénégalais yi xamuñu am yene bu baax ci sénégalais yi dëggal seen bopp ci loolee saafoonteeg sénégalais yi ba sénégalais am kóolute ci ñoom xamuñu loolu raccourci ci lañu xam tax yëngal mbëkkante ak musante yooyu la ñu xam taf yëngal ba ba ba këf nguur gi nag toog nag di noos ànd ak seen doom Abdoul Pape Abdoulaye Seck doom ji mu nekk ci jet privé yi nekk ci palace yi nekk ci caga yi nekk ci showbiz bi di sol ay Dolce Gabbana ay Fendi ay Gucci ay Prada ay Totsu ay Vuitton ay Dolce Gabbana ay Burberry doomu Idrissa Seck yi soog takk ay jama yor ay Ferrari ay Porsche ay ay ay ay Bentley nekk ci palace yi di fay ay 3 000 4 am na benn xale bu jigéen boo xam ne France la juddoo nekk bunti nekk ñoom la doon àndal ay doomu Idrissa sekk bi doomu Macky Sall bi bu ñuy dem Paris di dem di dem Bali xale bi la ñuy jël jox ko trente mille euros dix neuf millions lañ koy jox ne ko dama réserver salle bi ñuy Bali pour benn guddi pour dem Bali trente mille euros lañ koy jox xale bi mu ànd ak ñoom xale bi rek boo ko gisee ni muy solo mën naa sol dix millions yéram yére ci ay marque seeni jël lañu mooy réservé ji euh, euh, boîte de nuit yi ñuy baale doomu Idrissa Seck bi ak Ablaye Seck boobu ak doomu Macky Sall bi ñooy ànd ay xarit lañu dix huit mille euros dix huit millions vingt millions ci benn guddi soirée entre copains Paris teg seeni champagne xale yi càgg gi wër leen tubaab yeeg blonde yi yor hôtel yi ay place di fay ay deux millions par guddi seeni hôtel yi yor ay Bentley yoo xam ne c'est des voitures ay deux cent millions di dugg ci ay jet privé di luye ay hélicoptère doomu Idrissa yi Idrissa Seck moom mooy taxaw di regarder sénégalais yi di wax ak ñoom ak mépris naan dañuy dëng dañuy jubadi dañuy triant sénégalais lii Sénégal Idrissa Seck mooy taxaw tiim sénégalais dina xam ne du ngeen tus jamono boobu moom doom ji mu jur doomeraam la te du ko tudd wax na ba tudd naaru libaane yi waaw wax naa leen fii ne leen Idrissa Seck ak libaane yi ñoo ànd xam nga wax na ba ba ma demee Bandia ñuy chasse ñu nekk ca naar yi muy fen naan xamuñu ma Idrissa Seck mi ngi ci lobby naar yi moom ak naar yi ñoo ànd tey wax na ko ba ba ma demee ca euh, réserve Bandiaba ñoo ànd ak naar yi ñuy chasse club yooyu naar yi di créé club de chasse yooyu moom dafa complexe moom tubaab yi ak naar yi day fekk seen club yi seen mbootaay mu dugg ci biir naan day chasse def affaire yu bourgeois affaire Idrissa Seck moom marché Moussante la juddoo moom juddoowul hôpital ca marché Moussante ba la ko yaayam musini papam doon mbëkkante waaye dafa am complexe naar yi créer seen i club am seen i kër moo tax mu moo tax muy dem ci seen club de tir yi seen club de chasse yi seen club automobile yi di jaay affaire ay ay ay quad di dawal ay affaire complexe yooyu moo nekk Idrissa Seck dafa am complexe d'infériorité yooyu yooyu lay jéem a dabu ci yooyu la ne loolu nag moo nekk ci doom ji aussi foo ko fekk mi ngi ci biir lubinaar yi ak libaane yi li ma leen wax ko lu leer wax na ko tey nee na nee na mi ngi woon ca ca ca ca ca seen club de chasse yi napp seen club yi nga xam ne seen ndaje yi nga xam ne ci la jàngee euh, rëbb rëbb te naar yee ko moom xam nga ne Sénégal yéen ta tal leen taxawal ay club ak rëbb loolu yëfi naar laa ko yëfi tubaab Idriss Seck nee na fa la nekkoon dégg ñu naan Macky Sall li mu liggéey ci réew mi tabax na fii defa naar yi di wax foofu mu ne ca téléphone président ma ne maa ngi ci clubu chasse bi bànjaadi libaane yi fii nee nañu macha allah tabax nga Sénégal def nga fépp ndox fépp a ngi ball naari ñoom ñoo mën a xaaral ma woo président paas la naari Idrissa ko def ni lii dama am ci réew lii daal mooy li am Sénégal waaye nag yow mi may déglu ak man ñun dañoo ko mën a jeexal jóg taxaw rek xeex rek nee na Macky def na ay forage da ngay xool forage nga xam ne ba ma ko gëjee dégg moo forage maa ngi ko déggee woon ca Elisabeth Diouf ak Abdou Diouf forage moo lay xamal ni seen système yi réflexe yi doxul Idrissa Seck naga ca façon campagne Abdou Diouf ba Elisabeth forage nee na naari na ko li nga def ci forage maanaam moom naka ca lan daan dégg ci Abdou Diouf di ko campagne ak Ablaye Wade ca 1990 ana yooyu nga xam ne boobaag léegi mat na 40 ans jamono yooyu monsieur forage madame Moulin Abdou Diouf di maye forage Elisabeth di nekk ba léegi forage lan daan dégg ci Abdou Diouf ba léegi moo nekk ci bopp bi nee na makee nga tabax ay forage man forage dama ko déggatul fenn forage nga xamne ne heure woon naa fekk am ndox ñu wax ñu wax waxi forage nga xamne ki doxul ki demul forage il de loolu nga xamne Abdou Diouf magat na boo ko widaas mu la daan campagne monsieur forage ak madame Moulay ñi ñu doy waram mo lay xamne ne mu doxul doxul doy wala deug deug deug waye ñak wax senegal yi pour ñom senegal yi duñu dara te day fay sax ci wax Idrissa Seck boko ko da nga xamne ki kii il a du mépris sur les Sénégalais il a une haine viscérale contre les Sénégalais Idrissa Seck sous-estime les Sénégalais il les prend pour des moins que rien dafa jël Sénégal jàpp leen ay golo leggu leen pour moom moo leen gën a muus moo leen gën a xam moo gën a civilisé da leen a tiim da leen wax bu wax ak ñoom da leen a tiim ñàkk wekk Sénégalais yi Idrissa Seck te du tus du dara Abdoulaye Wade dañu tooñ mooy fekk ku bon ku juddoo marché muusanteeg ak ku juddoo ci kanamu école bu yaayam di jaay gerte caaf kii ci buntu école bi la juddoo pot yaayam di jaay gerte caaf ca kaw taabal yaay di jaay gerte caaf fa la juddoo kii yaayam nga jaay géej gi ca marché muusante ba juddoo ca kaw taabal géej gi ñaar ñooñu la Abdoulaye Wade jël faxas leen weer leen ba ñu wow raxas leen soo leen ay costume ndax dañoo mën a cogg bu tey Sénégal yëpp nekk ci fitna lii lépp Abdoulaye Wade bokkul ma Abdoulaye Wade ay forage ki ay moulin fi Sénégal toll Sénégal vingt et unième siècle nga xam ne ba ñuy wax forage ki moulin boobu Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg juddoogul xamuñu luy internet xalaatuñu ko télé ci post YouTube yëpp amul abu Diouf di maye forage fe Elisabeth Diouf dafa di maye moulin moulin en mille trente ans trente cinq ans ñu toog Idrissa Seck dañuy wax ay forage ki Macky Sall ngeen réew maa ngi dox Maxal ne double, 14 000 milliards l'équivalent du PIB sénégalais en 10 ans la wax 14 000 milliards ana y a dougu ana il ay forage ay il mérite la pendaison la guerre c'est imbéciles de rien là c'est incroyable dañ fi double, ci vous vous rendez compte Vous vous rendez compte ah bon marche Moussante c'était le marché des Gainsman et des Tourian Ah moo tax fallait la juddoo te di ça, sekk ma nga juddoo ca marché Gainsman et des Tourian et marché Moussante nee na laa gi nee na marché Moussante mu doon le marché des Gainsman ak Tourian yi à Thiès fa la juddoo ci digg marché bi la juddoo bëccëgu ndara kaam bi digg njolloor loolu la wax de ah loolu wax de quatorze mille milliards la dugal na ci réew mi ci fukki at yéen nag yéen a fan la dugal anam na ko wax fan la dugal anam ana alal ay bo da leb de da leb dans le Sénégal. ma foogoon ne à 69 du PIB mais moom à 100 du PIB de la dette 14 000 milliards ça c'est le PIB du Sénégal presque donc moom li à leb ci ay bor mooy mi ngi tolloog le Sénégal ci at mi Sénégal est liggéey ci at mi yëpp ci un koom Macky leb 14 000 milliards ça c'est presque presque le PIB du Sénégal le produit intérieur brut du Sénégal Mon la Macky leb ci di ko ndamoo ah di ko ndamoo di ko ndamoo nee na moom mi ngi liggéey parce que mi ngi leb waa ana ji est-ce que yéen gis ngeen alal ji est-ce bi seet wàññeeku na loyer yi est-ce que yomb na ceeb bi est-ce que yomb na diw bi est-ce que yomb na njàng bi est-ce que yomb na hôpital yi est-ce que yéen bi ñi demoon Korité ji est-ce que paas bi yomb na nappkat bi ndax yaa ngi gis jën sàmmkat bi ndax xont bi yomb na baykat bi ndax gerte gi engrais bi yomb na fukki junni milliards ak fukki junni milliards ak ñaata fukki junni milliards ak ñeent la Macky Sall ne moom la leb ci bor ci fukki at yi mu fi toog def ko ci biir réew mi anam gis ngeen ko yéen Sénégalais yi est-ce que gis ngeen boobu alal ana alal ji leb ko ba noppi sàcc ko askan wi gisuñu ko ba noppi askan wi war koo fay nga taxaw di ko wax mais Macky Sall dafa yeb Sénégalais yi dañ ko séddoo ñoom ñëpp sàcc àll réew mi ñoom ñëpp dañ koy leb sàcc ko mooy ni Mame Mbaye def rek vingt neuf milliards yi ci la bokk dañ koy leb duñu ko liggéey sàcc ko ñoom ñoom ñëpp même même système bi dañuy leb ci turu askan wi sàcc ko dem def seeni compte toog ku wax ñu génn duma tëj xoqatal ne duñu bàyyi quatorze mille milliards la Macky Sall ne moom la leb ci fukki at di ko ba noppi di ko ndamoo nee na Ablaye bi mu fi nekk li mu leb bariwul Ablaye mi ngi bàyyi woon bor bi ci mi ngi leb gi euh, Ablaye Wade mënut a leb léegi Macky xam nga lan lan lay bàkkoo mën a leb nee na moom jàmbaar la ci leb moo dàq leb Ablaye Wade Ablaye Wade bi mu fi nekk li mu leboon motu woon ñett junni xaw a ñeenti junni milliards la leb Ablaye Wade mënut munta leb nee na moom Macky mooy jàmbaar moom moom moom moom moo dàq liggéey Ablaye Wade ndax bi mu fekkee Ablaye Wade di leb ñaar ñett moom dafa leb junni moom jàmbaar la ñu ne kon réew maa ngi am na kóolute réew mi ñu ko bëgg a lebal ñu ngi koy lebal réew mi dox na réew mi dégg maam na ñu bàyyi naan réew maa ngi tàkk taal bi ñu koy taal ak yooyu ak lakk pëne yooyu xeex bi day tax bu ëllëgee bu ñuy leb xaalis bi bu ñu koy lebal njëg gi ñu koy lebalee seer ndax dañ naan réew mi amul kaaraange ndax da ma ngay tàkk da ngay xeex kon tant que ñu ngi xeex day tax le xaalis bi ñuy leb day gën a seer bu ñu ko waree fay day day seer dégg ma ngay bàkku néewul réew mi nit ñaa ngi lekk ba suur néewul réew mi nit ñaa ngi naan ba màndi néewul réew mi courant bu doy am na ndox mu doy am na baykat yaa ngi bay ñi ngi dund ci seenum bay sàmmkat yaa ngi sàmm ñi ngi dund ci seenum sàmm ñi feebar ñi ngi faju ci hôpital yi ci paj mu mucc ay te seerul ñi nappkat yaa ngi gis jën ñi ngi napp waxul loolu de loolu du ko tudd ndax loolu dara amu ci waaye li muy ndamoo mooy moom bi mu fi toogee ba léegi li mu leb ci alal dugal ko ci réew mi benn président mosu koo def nee na loolu ak njàmbaram la ak liggéeyam la réew muy dox noonu lay doxe mu ne leb naa fukki junni milliards ak ñeent ci fukki at yi te Abdoulaye Wade li mu fi toog ci fukki at ak ñaar li mu leb yëpp matul ñeenti junni milliards kon Abdoulaye Wade liggéeyul maa ko dàq liggéey <laughs> Macky Sall moo yor Sénégalais yi man de Sall mi nag mooy toog dem julli ji grande mosquée tiim imaamu su ruuxkatu karat boobu imaam Samb nga xam ne karat lay dundee ci suufam gi la ko di ko ruux muy mu yëge ko wàcc imaam boobu mi naan moom da nga maam euh, lii may wax lii réew mi ñuy sàcc alal ji mu ne ku ci xeex boo dee safara nga jëm moom imaamu ruux katu karat boobu nga xam ne ruux na karat bi ba dañ koy kuus buñ ko kuusul mënut a jiite d'ailleurs nee naa leen ku mu jiitee ci mën a julli képp ku mu jiite na nga bamtuwaat si jiite motul imaam na mu def ba nekk imaam nañ ko wax jeeg ji ci koñ bi na ngeen jóg ne ko duppo imaam sàmb boobu jeeg ji ci ndakaar jóg leen ne ko duppo motul imaam de matu ko jeeg ji seede motul imaam doome xaraam jooju maanaam ku dee ci li ñuy xeex ñun li ñuy xeex moo raw jihaat nga naan jihaaduñu doomee xaraan ji jihaad dafay mën a jóg dañuy jihaad jihaad mooy na dëgg taxaw jihaad moo ñu sàcc sa alal jihaad moo ñu def la jaam jihaad moo ñu noggatu la jihaad mooy indi ay fen tekku ci kaw dëgg ñu koy xeex nga ne loolu jóge na fi lu yonent bi doon xeex lan la yonent bi doon xeex yonent bi xeexul pour nit dugg ci lislaam de yonent bi xeexul pour forcer kenn mu dugg ci lislaam yonent bi doon xeex parce que dañ koo jaay doole muy fayu tant ñi ngi jaay aw askan doole ci kaw suuf jihaad du fi fipp na ñuy def ñun doomi xaraam yi nga naan ngir ay yàlla yi di ko soppi ndax poñet mi ñu lay jox utal la kër imaam boobu ci grande mosquée bi jox nañ ko oto 4x4 jox ko essence jox ko agent bu koy garder sécurité jox ko ravitaillement dund weer wu ne di ko fay salaire million ay million di ko jox loowu ko taaw dem màkk di ko faj jox ko lu kër gu mu dëkk def ko salaire yëpp imam bi taxaw tey naan ku dee ci xeex yii ñuy xeex ñun suñuy xeex ku ci dee safara dañu imam boobu ñu ngi koy fay ay millions état koy fay jox ko kër goo xam ne état moo ko ko luyeel jox ko ñaari oto 4x4 ak jabaram oto jox leen ay 2000 3000 litres essence par an par kii di ko faj gratuitement su feebaree jox ko agent bip bu koy garder këram dégg nga moom jox ko magasin wu ceeb ravitaillement di ko jox kotaawu lu mat juróom wala juróom benn billet màkk ak bu dee umra yëpp bi dafa ko def moom imam boobu doomeeraam ci suñu alal lañ ko koy joxe moo taxaw ne ñun li ñuy xeex suñu ay àq ak suñu yelleef pour bëgg a ku ci dee safara la nee na moom moomoom safara imaam roofkatu karat boobu sant sàmm doomi xaraam jooju na ko jigéen ñi wàcce xam nañ bari mënut a nekk imaam ki taw Abdoulaye Wade waaw moo woo Pape Samba Mboup jamono boobu ne ko na am na président yokk sama salaire jamono boobu mi ngi xeex bi fa Abdoulaye Wade nekki mu doon buuxante ko ñu yokk salaire ay doome raam lañ duñu dara boo xoolee kanam gi xam ne kii nuurukatu buuj la doome raam nuuru na buuj ba gëmuñu ko tasaw mu naan ku fi dee ay jihaad xaw ma lan nee na ku nee na képp naan jox leen ma ku leen ko jox yàlla moo ne kuy laaj buñ ko jox fan la ko yàlla waxee fan la yàlla ne kuy laaj buñ ko jox. fan la yàlla waxee ne képp kuy laaj am réew buñ ko ko jox fan yàlla waxee da ngay seetli toog ci am réew ci grande mosquée ñëpp taxaw nga naan yàlla nee na kuy laaj réew mi ko buñ ko ko jox nañ ko am réew kenn ko jox ko ko laaj doomaraam ji nga doon yow boo doon nit a xam ne Macky Sall mi toog ci sa kanam laaj réew mi moo tax mu jot ci bu ko laaj li woon kenn du ko jox doomaraam ji nga ne ku koy laaj buñ ko ko jox lu tax ñu jox ko Macky Sall ko lu tax ñu jox ko Macky Sall mi toog sa kaw dina déglu lu tax ñu jox la ko lu tax ñu jox ko ko laaj gi mu ko laaj moo tax jox ko ko bu ko laaj woon kenn du ko jox doomeeraam jega doon far leen fenn ay caga ngeen ruuxkatu kare bi ku far ngeen ku falu ngeen ànd ak ku falu ngeen xas ko doome yi ngeen ku la xool xam ne mandikat nga naan ko ci whisky bu bon nga sa kanam googu ku la nu kujj xam ne doomeeraam nga nuuru ko te nga cim lu ko fal imam moom yàlla nee na kuy laaj buñ ko fal lu ko fal imam moom dafa tëdd këram dañu ne ko yaay imam laaj leen ko moom lu ko fal imam naka la faloo imam campagne wala campagne ba ñuy fal imaamu grande mosquée yéegati la loo xam ne damaa bëgg a nekk imam waaw wala déet dafa laaj wala laaju laaj leen mukk doomi xaram bi rufkatu karat bi góor jigéen yi mu doon imaamu soos soosaar yi laaj leen ko lu ko def imaamu grande mosquée naka la ko amee da ko xëcce wala xëccewut doomi xaram ji mu doon doomi wengal ngemb ji mu doon mu naan ku yàlla nee na kuy laaj bu ko kenn jox no def nek imam yow doomi haram yi doomi weggal ngëm bi li nga doon imam Sambu. lu ko fi jar digg imam ni mu réy ci yalla nga tok di fen jël aya yalla yi di falsifier di fen lu ne nga dugg ci ndax lan bañal go am am kooku jëmle kuy laaj réew mi dama ko bëgg yore nga ne déedéet waaye yow boo waree nekk imam am nga sañ-sañ yow jóg fu ne nga dugg fu ne maay def ko fëgglite ko daaba ji pour falu parce que imam bi dafa am weccit dafa am salaire am oto am jeeg na paaje am ay billet màkk am kër gooy dëkk am dépense doo fay courant doo fay ndox am crédit téléphone am ay deux mille litre essence am ay oto ay ndam am sécurité gardien am dem màkk yëpp ci nguurug état moo tax ngay xëccoo yow miy xëccoo ba nekk imam bi nga ne bu kenn xëccoo bu nekk réew mi kii est ce que wér na bu kenn xëccoo pour fàllu ci réew mi waaye moom ma sañ naa xëccoo moom pour nekk imam moom dama leen laaj ma gis beneen audio bu ñu naan sama jàkk ji ku fi julli nag ma na ma génneel 1000 francs ma ngi laaj 1000 francs de nee kuy laaj bu ko kenn fal bu ko kenn jox kuy laaj bu ko kenn jox ba noppi moom ndekete lu jiitu loolu moom taxaw na ci kaw jumaa ja grande mosquée ne ñiy julli si ci biir jumaam ji nee na moom grande mosquée moo ko moom de da day xolli innal masajida innal masajida moom nee na jumaa grande mosquée ji moom moo ko moom kuy julli si ci jumaam ji na nga génne 1000 francs teg ko ci ko taabal ñi fay julee si ñëpp ci biir jumaa am ji nee na moom jumaa ji moo ko moom nañ jël 1000 francs jox ko te moo waxoon tey ne kuy laaj bu ko kenn jox moom te bu fekkee moom mu laaj ba noppi laaj ko ci laaj bu xaraam ndax diine kenn du ci dund diine kenn du ci dund dafa xaraam ngay dund ci diine mu toog ci kaw mexar toog ci kaw jumaa ji ni jumaa ji nga xam ne moom jumaam la ku fi ñëw na ko jox 1000 francs moom imaam Samb ruxkatu karat boobu bu ñuy fen yàlla mooy tëj seen jëriñ ba ñuy wax safaanu liñ bëgg wax bu kenn laaj kuy laaj du su dee su ko jox yàlla waxu ko fenn de waaye taxaw na tey ci kanamu jàkk gi na yàlla nee na kuy laaj bu ko kenn jox waaye moom mi wax loolu moo taxaw ne nañ may jox ci jumaa ji nga xam ne jumaa yàlla ji la mu fokkati ko ci yàlla ne moom moom jumaa ji innal masajida lillahi lañ wax moom nee na déedéet innal masajida li imam Samb taxaw ne nañu ko jox 1000 francs ku si julli nañ ko jox na ko ci yàlla tay mu ñëw nañu kuy laaj bu ko kenn jox yàlla na kuy laaj bu ko kenn def kon waaw moom moom naka dafa am xam moom dafa foqati moom xanaa dafa foqati moom damay laaj képp ku julli ci ginnaaw kii amoo julli maa ngi leen koy wax yéen ñiy julli ci grande mosquée yëpp bis naka tey ku julliti ci ginnaawam amoo julli da nga koy baamtuwaat matul imam na ngeen ko folli wala ngeen dem julli ci seen kër wala ngeen dem julli ci yeneen juma ku taxaw na juma maa ko moom ku fi ñëw nag ma jox alal taxaw fanal yàlla na yàlla nee na ku laaj bu ko kenn jox te li muy wax amu ci dalil du ci alquran du ci sunna amut kooku matul imam charte yi ñuy falee imam mandu gi ñu laaj ci imam amu kooku ku julleetu ci ginnaawam amoo julli lii meew dama bëgg ngeen dagg ko ba Sénégal gépp xam ko ñu jullee grande mosquée ñëpp ku ci imam Samb jiiteeti amoo julli boo noppee nan ko baamtuwaat boo ko deful amoo julli te julli dafa julli dafa nekk loo xam ne julli farata la da nga koo def ci charte yi ñu ko war a defee imam bu doyul matul imam bu mu la jiitee bu la jiitee boo noppee da ngay baamtuwaat sa julli da nga koy julliwaat yàlla caaxaanu foluwul ku mu jiite amoo julli lu leer laa wax ki ma dégg muy wax matul imam xawma naka la def ba falu imam mais charte yi ñi falu imam matu ko dafa war a ndax amul mandute imam mënoo koo nekk te amoo mandute te kii manduwul kuy dem bay sosal yàlla di sosal yàlla kooku mu dul imam taxaw ci jumaa naan yàlla nee na kuy laaj bu ko kenn jox kooku dafa sosal yàlla sos lu rëy la ko sosal kooku ku jullitu ci ginnaaw wallahi amoo julli da nga kepp keppal ba dee taxaw yalla na la daawoo julli moytu leen façon imam yi bare na dakar nak amna imam yo xamne ku julli seen ginnaaw amu julli su ngeen bëggee am julli nak mbolo folli leen ko ken texte tànk mi ngi fofu ku julli ci ginnaawam amu julli da nga kepp keppal ba dee dem yalla dumale lak yubla safar safara ah comme mom mo xam fa safara nek kuy jihad ku lu jihad ku ki dee ku dem ku dem safara da nga ko fekk mom mu leen jité fofu ku ko xol xamne ne yamba yàmba tuma kanam ku kanamam xujjaale googu ku ko xol xamne ne ko du sangale wala tukkatu yamba amna eh, bu mu ci def ñem gu toy googu di ma sax de nga maam gimi gimi ñem gu sax ñem gu toy googu di ma sax bëggëj ci ku xol xamne amna lu mi mos doomi xaram non sama mu juma ban juma day mos kay ku ko xol xamne amna lu mi mos ñem googu di ma sax bëggëj kuccaa bu ñu riiti ba mu saf sàpp ak kànje cim Cheikh Anta gémmiñam googu bëggëj la may saf bëggëj loolu la wax da ngay dem ba dañ lay dugal ci yow da sa xol day tàng ba da am envie des fois def loo xam ne du du sa cër wala nga wax leen loo xam ne waroo ko wax tellement dañoo amul respect ci doomu aadama yi tellement dañoo am sañ-sañu tellement dañuy offensé tellement dañuy def lu ñu naqari bus bu ne dañuy dem ba génn la taxawaay boo xam ne dugal la ci loo xam ne du cër tellement seen jëf yi dafa bon dañ lay pousser pousser pousser ba nga wax wala nga def loo wut loo xam ne du sa cër mais seen jëf yi bon yi. ñoo lay yóbbu ci loolu wallahi lazim lu ci bari ñoom ñoo ciy yóbbe jëf yu bon yi ñuy jëf jaay doole gi fen yeeg ñi yàqee diine ñu yàq alalu askan wi yàq lépp coono bi ñu teg askan wi mooy pousser ñu baree baree bare ba ñu am ay jikko yu bees yu ñoom yoo xam ne bu àdduna normal doon dox duñu mas a jikko woo yooyu jikko duñu mas a xalaat daañu agsi fenn fi waaye bari na ci Sénégal ñoo xam ne naqar gi ñu leen teg moo leen yóbbe ñu dem a dem bay génne ci seenu làmmiñ wala ñuy jëf ci seenu loxo loo xam ne bu réew mi tegu woon ci dëgg di loolu lépp du fi am waaye nit ñi meluñu nenn ni ñu baaxee baax a baax a baax noonu lañ mën a xëyee bon ndax li leen di bonal du seen jikko du seen bëgg a bon waaye situation moo leen dugal ci loolu naqar ak jaay doole ak injustice bu ñu teg ci réew mi ak xokkatal ak xañ leen dund moo leen yóbbu foofu bu ñu fa àggee dootuñu doon la ñu war a nekk dañuy nekk leneen lu ci bari loolu moo ko sabab te kenn du ko wax du duñu wax nag ci li sabab jikko yi yàqu waaye dañuy bàyyi ba jikko yi yàqu ñuy xaret ni seen jikko yi yàqu waaye la tax jikko yi yàqu kenn du ci wax te mooy ñi téye réew mi la mafia bu marabutique mooy marabu yeeg imam yeeg mafia politique bi sàcc alal réew mi jël askan wi noot leen def leen ay jaam ba askan wi di fipp di saaga di dóor di wax mu ne duñu xëyee yàq leen ñu ne tocc tele yi amee leen te ñoom ñoo tax li tax askan wi mel ni waaye bu lépp jaaroon yoon askan wi duñu mel ni lii mooy li te kenn du ko wax kenn du ko wax lu tax pourquoi diine ji amul buur amul baadoola yàlla waxam ji amul wax ju mu jublu ci baadoola yi ak wax ju mu jublu ci buur yàlla benn wax askano yëpp lay waxal li muy wax amu ci taamu ci buure ki badola yàlla toppatoowul ay buure ki badola dëgg la am da koy wax wax ko ci kanamu buure ki badola jéem yow imam bi bu président toogee ngay xool lakoo ko neex di ko wax di politique ci kaw jumaa ji di politique nga ne ci diine nga nekk nekkoo ci diine ci mafia politico marabutique nga nekk nekkoo ci diine ndax lan jéeg bi ngeen jéeg yi ngeen nappaaje nappaaje gi jéeg gi nappaaje gi ak pooji ganaar yi ngay lekk ak jéeg yi ngeen nappaaje rek moom nga jël jënde ko askan bëgg-bëggi askan wi rek qaala allahu qaala rasulu sariya beeg xadis jël nga ko takk ko ci bam kaddu ubbi sa caaya takk ko ci sa gen bi yow imaam bi takkaat sa caaya toog lépp yaa ngi takk ci gen bi jéeg bi jéeg bi ngeen nappaaje guddi mom ngay jël kamil alquran bek wax yonent bek yépp ak bëgg-bëgg asbi nga tak ko ci sa biir tubey ndax jeeg bi nga na faaje poñet bi la Macky Sall jox nga nappaaje di jeeg moo tax nga jaay yalla jaay diine gi jaay alquran jaay askan jaay jaamu yalla yépp ngir koppar bi la Macky Sall jox nga man ci na faaje jeeg man man ci nuuru buuj def ci sa kuccia ak sa bëgg yaay doomaram yaay doomaram moo tax gatsa gatsa gi bu tàmbalee buñ ci bàyyi imaam yi imaamu soos soosaati imaamu karot yi ñoom ñëpp nañ dal gi seen kaw doome xaram yi doon kenn mos gis ñu mel doome xaram bi muy saf piccum xaax nga ñe doome xaram jeeg sa gimiñ tooy di ma saf bëgg ñoom na def nañ seen interview sànq def ko en différé sans image gis na nit ñi faale wuñ leen impact bi ñu bëggoon ci Sénégalais yi amu ko sànq la TFM jël na interview bi teg ko ci TFM ngeen gis Macky Sall di wax bi ñu koy njëkk a teg Macky Sall ñëw dañoo teg interview sonore bi rek teg photo bi muy wax ñoo ko tey testé xool. gis na doxul ñu génne interview parce que visuelu Macky Sall bi lañ doon nëbb parce que Macky est agressif verbalement comme gestuellement dafa agressif léegi nag génne nañ benn bi audition bi doxul ñu génne visuel bi léegi visuel bi lañ génne sàll mais du dox bu ci kenn wax bu leen ci commenté bu leen ci wax ñun nañ wax waxi Ousmane Sonko wax waxi opposition bi wax douze points projet yi grand projet yi Ousmane Sonko nan nar a lancé Ziguinchor ak liggéey ba muy liggéey nga xam ne mi Dias dafa war a roy ci Ousmane Sonko xool li Ousmane Sonko def fexe ba Ousmane Sonko nekk nawleem waaye Barthélémy Dias Ousmane Sonko du nekk nawleem daayiman ndax bokkuñu ay valeur bokkuñu éthique bokkuñu li ñu gëm Barthélémy Dias ab tappalekat la doomu système bi la ci système bi la juddoo ci la màggee ci la nàmp ba fenn ci tappale la xam ak sàcc ak njuut njaaj moom Barthélémy Dias njuut njaaj mooy liggéey motax tax mënta rey ci Ousmane Sonko la Ousmane Sonko def Ziguinchor Barthélémy Dias am na 10 fois plus wala 100 fois plus budget Ousmane Sonko maire Dakar waye bam mu ba ba bo au champ social tabax ay armée fi ay pavé ay armée fekk ñu dé mu difa def ay millions ñu dund faalé wu leen deful dara Dakar taxawal la sa nek nek ci hôtel yi ci avion premier classe yi hôtel yu cher yi nek ci gaspara bi Barthélémy ñu di taxawal ko ay cagam ñu Dias liggéeyul man ci ñu ko faloon laa bokk ci ñu ko campagne la bokk rëccu naa ko Barthélémy Dias dama ko rëccu te dootul am sama carte si fini fu mu bokk dama koy xeex moom Barthélémy jaas parce que moom kenn du ma fooye tappalekat man man talu may tappale campagne yu ma politique ma pour ay tappalekat di nekk ci kaw dina palisé di jeeg dañuy politique pour soppi xar kanamu réew mi ngir askan yi mën a dund am liggéey di ci dund loolu moo tax ñuy xeex

Yak alal alal jo xamne ay miskin ñoko mom ay nit ñu ndóol rew mo xam ne nit ñi dañu li ñi am ci alal doyul nga war ko def ci askan ñuy dund nga bayyi fa ñuy dund dem ci armeel ya di leen tabaxal ay yoon ñuy jaar mais mais vous vous rendez compte dans quel pays nous sommes ce pays marche par la tête un Barthélémy Dias di jël alal bu mel Dakar di tabax ay di pavé ay armeel jamono yooyu nit ñi amuñu fu jaar ñi dox ci gannaaw bi seen dal yi yàqu seen tilim rew mi Dakar salté fo yu ball yu baxul bu buuxante yi mbedd yi xat jaaykat yi paccax paccax baax li la di gaz yëy di il ma tabax ay vous vous rendez compte ay millions ay milliards lay def ci ay voyage hôtel ki billet d'avion cher ki premier classe ki luxe lay dund baax la di luxe la gëm dund rek la bëgg hayat xëc ay joint def limi def na ja ay jéegam nek ci hôtel ak place di wol aduna bi def ay mission frais de mission liggéeyul il faut ngeen xam ko ma fi taxawuñ fi diko campagne yewi askan di xex di wax lu ne pour mu fallu mako def na ma won diko xexal pour mu fallu tay gisuma la taxoon ma ma di ko damay wëbutu ko xex ko man j'ai pas ces problèmes là ndax man damay xeex tant que maa ngi mën a xeex damay xeex su ma la amee ci confiance naa la xeexal su demee ba ma gis ne la ma doon xaar ma ko dama lay xeex dama taxaw wëlbatiku xeex la waaw naan damay nekk candidat baax ku la fekk nga da ngay xalaat ay politique yu nekk candidat Sénégal yow Dakar lañ jox mënu yow Dakar doogu mënu bi dara un an lu topp Dakar mënu bi dara bientôt un an et demi quinze mois defoo dara Dakar lu nit ñi teg seen bët dara mbënd mi léegi mu ñëw ngay dégg ñu naan ma nga joxe ay pompe pour pompe ndox maanaam que du prévisoire que du fet yi nga ma ngay joxe ceeb fee bon essence fee ma ngay jox catholique ya ma ngay jox musulman ya ma ngay kër kër dem seeti Maodo fee dem Touba fee dugg sol sa grand boubou sa kaftan dugg fii joxe ay ndimbal si ay aide affaire corruption tappalay maan yooyu yooyu moo jeex ci réew mi lu ñu bëgg mooy des projets structurels def lu ne fàng lu ñëpp di jëriñoo waxuñu nga jël alalu askan wi jox ko ñenn ñi xañ ko ñenn ñi da ngay defal loo xam ne ñëpp ci yam baax te xalaatul loolu njuut njaat mooy liggéeyam loolu la masa xam musta liggéey xamul lu ñu liggéey xamu tappale rek ak teg dil Mouna Akhenaton, tu es trop exigeant, bro. En effet, je suis très exigeant parce que je suis conscient. Parce que moi, conscience da ngay am exigence. Conscience, l'on Conscience, nit ku ko am citoyen bo am conscience day am exigence moi suis extrêmement exigeant vis-à-vis de tout le monde Sonko ñep man damay ànd ya yow nak damay taxaw tem parce que li tax may ànd dama ko xam man tàccuwuma réewuma fekkuma sawar guy tëgg ci kon bi ma dégg téeli téeli ji ma ñëw taxaw ci si daan sabar gi tàcc déedéet man suma may dem ci tabac gi sawar gi damay xam ku tëgg sawar gi lan ñoko sax sabab damay xam la ca ne avant ma kay dem xol ndax jar naa damam déet nekkuma toog ci kon bi rek dégg lu tëgg-tëgg rek ma dem taxaw man fekke boolewu ma ci lu may dugg damay xam lu mu doon sokkee tab bi wala bañ cee bi su ma ci xase ba tab day fekk ma peeg ko su ma ko peegee rek dama ciy dugg ba noppi ne taxaw temm ak sama ay exigence du ma la may dara man su ma man ma ànd ak yow coono lay doon ci yow parce que du ma la bay dara du ma la baal dara ndax li may ànd ak yow gënoon ma koo xam gënoon ma koo bëgg da nga ci jàpp ma jàpp boo ki defee ma ànd ak noon noonu laa fidèle aussi suñu bokkee ay gis-gis ci njariñu askan wi nga yore ko man na maa dee avant ngay dee. duma la ba mukk tant que yaa ngi ci njëriñu askan wi je su ma demee bëgg na ay tappale ma la du dugal damay wëlbati ko fàtt sama yet noonu lay taxawee xeex mi parce que dama am conscience ci li may xeex li may xeex làmbatuuma ko li ma bëgg réew mi làmbatuuma ko loolu moo tax ma exigeant tu as bien fait tu as raison Akhenaton tu es trop exigeant c'est une vérité pourquoi je suis trop exigeant parce que dama bëgg réew mi baax yow miy wax ak man ni ma mel nga waroon a mel yéen Sénégalais yëpp bu ngeen meloon ni ma mel ci exigence bu ma ànd ak Sonko ànduma ko pour di parparloo du daay rek dañoo ànd ak Sonko parce que dafa am lu ñu bëgg ci réew mi yaakaar ko ci moom bu ki nekkee ñu ànd ak moom bu ki nekkul ñu sàq suñu ay yet dal ci kawam jaamuñu Ousmane Sonko xamuñu ko moomuñu réew mi lañ bëgg mu baax mu ne mën na ko defal ñu ànd ak moom ci confiance exigence tànkam suñu tànk Macky Sall noonu la ñu tax baax la ñu yaas kenn koo xam ne da ngay jox réew ne bàyyi leen ngay def lu la neex def ñu

parce que tubaab yi jaaxaanuñu dañ lay jiital te liñ la jiital xamoo ko lu ëpp li ñu ko xamee li nga ci xam lañu ko xam mais ñëpp ñoo jiit ñu la doxal waaye yaa ngi doxal nag waaye ñu ngi lay xool li ñu xam ci li def sax yow xamoo ko ñun dañ laa jiital rek boo ci teggee tànk da xam ne sa yéen nag dootoo ko dolli exigence boobu moo tax tubaab yi raw ngeen naan non xawma

ku mën a fal kay mën a folli te ku mën a folli mën a joxe sa xalaat il faut mais quand même mais dans quel pays nous sommes ñun ñooy falaate mais ñi ñu fal bu ñu defee loo xam ne gisuñu ci suñu bopp amuñu sañ-sañu ŋàññi leen ngeen nekk démocratie lañ nekk soyez extrêmement exigeant C'est à ce titre seulement que le Sénégal pourra être un pays développé. Le Sénégal ne sera jamais développé tant que cette masse critique dont parle Ousmane Sonko dans son livre Solution n'existe pas. Il nous faut aller tous vers cette masse critique des citoyens sénégalais extrêmement conscients, exigeants. On ne pardonne rien à personne. Moi, je suis très dur, je le sais. Beaucoup me le reprochent. C'est pas méchant, mais c'est de l'exigence. Moi, je suis quelqu'un qui tend vers la perfection. J'aime les bonnes choses. Je veux que les choses se fassent dans les règles de l'art, dans le respect de la dignité humaine. Un mandat électif, ce n'est pas, pas un cadeau, c'est un sacerdoce. su ñu ne ko joxee du tàngal bay màcc une responsabilité la liggéey la futteeku coolal du noof laay du tëdd hôtel yeeg pas de non donc dire que est trop exigeant c'est une fierté li ma doon naqare est trop léger trop approximatif trop émotif loolu moom may naqare mais accueil est trop exigeant kooku c'est une fierté et je le sais et ça dérange certains Sénégalais oui tu critiques tout le temps tu es toujours négatif je ne suis pas négatif je suis exigeant même su baaxee sax dama naan baaxul pour mu gën a baax ah, parce que man vous vous suffisiez du minimum da ngeen soxla 100 bu ngeen amee 5 na baax na alhamdulilah man damay soxla 100 am 50 na baaxul pour am 80 parce que man na pourquoi tubaa bi di am 100% ñun man ci 50% su baaxee sa su baaxee sa dama naan baaxul pour mu gën baax oui je tends vers la perfection Il faut être des gens de l'excellence. Nous devons cultiver aujourd'hui une, une façon. il nous faut aujourd'hui avoir la culture de l'excellence. C'est seulement quand on aura atteint cette culture de l'excellence que le Sénégal sera un excellent pays, que les Sénégalais seront respectés, que nous serons développés. Tant que nous n'avons pas la culture de l'excellence à la place de la culture de la médiocrité et de la suffisance. Mais c'est quoi ces histoires-là Je suis extrêmement exigeant. Même, et souvent, je le suis plus avec ceux qui sont avec moi. Je suis plus exigeant avec ceux que j'aime que avec ceux que j'aime pas. so, ça sama exigence Ni ma àndal ni ma grande a ni ma faral ni ma bokkal kan ñoom laa petit ci ma exigence que sax ki may qui ki nga xam ne ànduma moom li may tek ci ni ma àndal wa yeewi askan ne Ousmane Sonko gi passé fek ni ma taxawee ci ñoom pour ñu réussir taxawu moo ko sax ci Macky Sall bi may parce qu'on ne souffre que du mal que nous font ce qu'on aime déggu leen ma de nit ki li ko metti dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg warta jóge ci noonam waaye ki mu bëgg ki mu jox dayo ki mu faale kooku moo koy def li ko naqari waaye ki nga faale wul di sat noonu bu la defee loo naqari loo naqari parce que nawloo woo ko mais ki lay def loo naqari mooy ki nga nawloo ki nga def teg ko foo xam ne mu xëy def la noo xam ne kenn waru koo def nit kooku ne on ne souffre que du mal que nous font ce qu'on aime Moi, je suis extrêmement exigeant vis-à-vis de ce que j'estime qui aime bien châtie bien le Sénégalais n'a pas cette culture de l'excellence, cette exigence extrême, surtout. Tant que vous n'aurez pas atteint ce niveau, vous n'aurez pas encore quitté le monde des Lapotons. Vous êtes en Lapotonie. C'est le pays où habitent les Lapotons. Quand je vous taxe de Lapoton, vous pensez que c'est pour rire, vous n'avez pas compris. Le Lapoton, c'est un mot que j'ai baptisé pour caractériser sémantiquement l'esprit sénégalais Le baree baree baree ci nag ñu ñoom mais le làppato c'est un dictionnaire c'est tous les mots qui gangrènent l'homme sénégalais tous les mots qui l'empêchent de de de de d'aller de l'avant tous les mots jafe-jafe yi téye Sénégal tënk yëpp ba ma ko nattee si ma ma làmb ko bu bari bari ma tënk ko ci benn kàllaama bu ma tuddee làppatu bokk na ci nit day doylu àdduna amul solo ay nañ ko bàyyi mu liggéey ah ku baax la de pourtant mi ngi liggéey lu mu liggéey mi ngi def social vous vous rendez compte social def social du liggéey social da ngay liggéey ba noppi ba créer produit ba créer richesse séddale ko fay ay salaire ba mu des nga xool la ka des nga génne ci joxe social yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu jàngal ñu ñuy ko ko yàlla néewul ngeen di ngeen di liggéey di joxe asaka yàlla nee na na ngeen liggéey la ngeen cee am ngeen dund ci ren ba déwén bu ngeen dundee ba noppi ki saw ñaq payooree ngeen du ci la ca des nga génn ci asaka asaka boobu mooy sociale yàlla sax newul ñu def social métier social du métier da ngay liggéey am payoor liggéey mooy baax li liggéey utu lu ñuy social lay def yàlla newul social social day yàq société social du métier social kenn du ko def politique social exception da ngay fexe ba nit ñi am xëy am métier am xam-xam di ci liggéey am ci lu ñu mën a teddee dundu ci ren de dewen ba mu des ba ñu am lo xamne ne soxla ngi dundu bi jent ko di ko korkoral lolé la yalla na amal loo ci fell jox ko miskini comme que social c'est pas la règle social c'est une exception la règle c'est le travail ñu bëgg jël réew mi bu ko samp tabax ko ci social def ko muy métier liggéey liggéey bi légui moy social ko wax maanaam dafa social parce que réew mi ñepp ay kat lañ ñu ci bari ci yelwaan lañu dundé talal loxo di dund c'est une honte C'est une catastrophe. Moi, j'invente un Sénégalais de type nouveau. Moi, je suis dans une dynamique de créer un nouveau logiciel dans la tête des Sénégalais. dama nekk de créer xar kanamu Sénégal Sénégalais C'est une valeur yi ñu leen bàyyi ñaan il maami yëpp ay lu ci ëpp contre la valeur daf la barre de du leen il faut que ñu génne ko suñu bopp yi sànni ci àll ba def ci ay valeurs yu bees lan mooy social sarax yelwaa vous n'avez pas honte vous n'avez pas honte amu leen kersa di dund ci yelwaan social baaxte ma jox ceeb moom may diw loolu yéen gàcce la tubaab doo ko sarax tubaab boo ko joxee ne ko boobu boobu tàngal danaa la pourquoi nga ma koy jox tubaab fekk rombal tubaab ci muy nga ne ko am maa la jox ceeb diwlin maa ko sarax wala maa la jox guro bi wala maa la jox mbiskit wala sondel il va te demander pourquoi nga ma koy jox mais tu te prends pour qui tu me prends pour qui mais man man pattuma lagguma man man nga pourquoi nga may sarax yow da nga may yëpp naka nga may xoolal ma dem nga may sarax ceeb naan ma nga may génn sarax pourquoi nga may sarax histoire la koy def ak yow parce que da dañu am dignité mais yéen amu leen dignité vous êtes des sous êtres humains vous êtes des sous hommes et sous femmes parce que amu leen ngor amu leen dignité yéen war ngeen di dundee loolu musiba la ay nit moo tax ma du ngeen ay nit nit dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg day jomm tàllal loxoom jox ma ma lekk. as gor dina ko def tubaab du ko def tubaab yi ngeen yaakaar ne yéen leen gën tubaab yéen leen gën dañuy liggéey dañu gëm liggéey parce que xam nañu seen teraanga mi ngi ci liggéey seen dignité mi ngi ci liggéey seen bañ a tàllal loxo mi ngi liggéey seen bañ ku leen yàpp mi ngi ci liggéey moo liggéey bu ne dina ko def pour lan pour bañ a tàllal loxoom mais yéen dem ca mairie ba di ran ñu leen jox ngeen di lekk moo leen gënal dem liggéey parce que seen yaram bi deretu gor ne wu ku ko wax ngeen mer yelwaan du dunde yelwaan ngeen bëgg a dunde yelwaan cëm cëm naan baax lii day def social mais social du liggéey dajale budget boo xam ne ay impôt la lii ay bar la état dajale ko yëpp ñu imputé la ko jox la muy milliards wala 75 milliards ñu dajale ko ci ñak ñi liggéey ñi liggéey ci réew mi tax nga a am ñu nga ko mais vous vous rendez compte social parce que day politique bëgg clientélisme politique il achète les consciences politiques ci budget xam dañ ko pour Dakar mu def ay liste dama ay ay ay ay restaurant ay ay bon champ. À tabax cimetière mais vous vous rendez compte vous vous rendez compte quand est-ce que Dakar va va va respirer ce que Dakar va rafet Quand la Dakar di am ay espace vert Quand la Dakar di am ay projet mais mais mais Dakar vous avez besoin d'avoir des piscines municipales moi je bien aimé que le me dise écoutez j'ai un projet de trois piscines municipales au niveau de la ville de Dakar ñu réhabiliter la grande piscine municipale de Pointe, d'être def une grande piscine municipale entre entre à côté de Parcelle Assainies c'est un centre multisport piscine gymnastique affaire yu bari def ko fa ci olympiques, mu nek centre multisport piscine olympique wala piscine municipale pour que ngay dem des piscines, ci piscine il fait chaud d'accord ñu jël dans la banlieue à à on wala une piscine municipale financée par la municipalité de Dakar def ay espace vert def ay centre sportif def indi ay cinéma def ay théâtre la vie culturelle la vie donc sportive et puis la la l'espace le cadre de vie assainir il y am ay feux multicolores nettoyer les les parterres des des routes des des génne suuf si def ay pavé def ay ay des fleurs, fleurs Dakar ville fleurie Dakar ville fleurie pourquoi pas Dakar nekk ñu am benn cap benn projet. Au niveau de la ville de Dakar, Dakar, ville embellie, ville fleurie, ou Dakar, ville propre. Ou des a des charges, ou des standards, ou des équipes Dakar, pendant ces 10, prochaine année dañu bëgg qui une ville lumière éclairée une ville propre sans saleté une ville sans sable entier mais une ville verte avec des fleurs des arbres et tout ça une ville sportive une ville culturelle une ville de chant. mais loolu il ay ambition Mais j'attends de médias sur ça mais des médias, il me parle de voyage il me parle de de bon essence il me parle de bon cochon il me parle de cimetières. mais moi je m'en fous de ceux qui sont au cimetière moi moi je m'occupe de ceux qui vivent que cimetière de mais du pas un centime au cimetière à la place de la vie les gens sont en train d'attendre ni ne sont mais c'est pas les cadavres là couchés au cimetière qui votent pour toi ce sont les gens qui vivent qui votent pour toi au lieu de s'occuper de ceux qui votent Barthélemy Diaz va s'occuper de ceux qui sont couchés au cimetière mais pourquoi on investit sur des morts dans quel pays au monde on donne plus d'importance aux morts en termes d'investissement qu'aux vivants dans quel pays au monde Mais ce pays marche pas la tête. Barthélémy il marche pas la tête. Il n'est qu'un droit. mais Barth il aura ses chemins man dama am à à l'aise pour di wax parce que man dama suis ci ñi ko fal dama campagne donc je suis à l'aise Barth n'est pas mon ennemi je ne suis pas un opposant de Barth je suis au soutien de Barth mais exigeant rien à mélanger. Ils foutent rien. C'est une mafia qui mérite lui. Il a copains tech. Il a gars. mais c'est une mafia. Il a des marchés fictifs Il a une copains, Il a une société. Il a des marché. Il a des marché. Il a une rétro conditions Il a une deal. Mais ils n'y a pas temps pour faire ça. Vous gars qui est une deal. Ben, en vrai, ça n'est pas. au bon au champ. Tiens, tiens, souk. Ben, même dit. Mais comme, comme qu'il y a une porcherie, quoi. Mais il y a ils qui va avoir une ville de Dakar au 21e siècle. Taille. Vous vous rendez compte Il faut arrêter là. di dem ci ay marabu di nuyoo ji di photo wu di dugal ci ay Facebook mais vous vous rendez compte mais nuyoo ci ay Marabout, mais nous, c'est pas les marabouts qui t'ont élu il faut que tu arrêtes Barth vous tremblez votre temps à aller chez les marabouts. Ce Seigneur a une beaucoup de temps d'une chaleur infernale. Du que Serigne Mais pourquoi faire On défait de au festival d'Atal. Vous arrêtez, on vous attend sur le terrain. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour soulager les populations Non, les populations, ce n'est pas les marabouts qui nous ont élus. Mais vous êtes dans la tricherie perpétuelle. Vous êtes dans. Mais c'est scandaleux. C'est écœurant à la limite. su ma déggee Ousmane Sonko di wax ay waxi politique mais Ousmane Sonko il n'a rien pigé quoi tu arrêtes de nous parler de Barthélémy Diaz. Ousmane Sonko arrête de nous parler de Barthélémy Diaz. Ousmane Sonko c'est pas mal. c'est pas le même modèle vous n'avez pas la même éducation vous vous êtes croisés en politique mais Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñun bu ñu gisoon baax du ñu topp quoi hein? il faut arrêter de Ousmane Sonko plus soo est crédible encore il faut arrêter de nous parler de Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz n'est pas un modèle en politique voilà bon sur ce je vais vous laisser parce que souvent on na ñoo xam ne live bi day effectivement quand on parle de tous les sujets et puis ça c'est long une ko fi yemale et puis wax na daal ñu ñëwaat fay na si yeneen qui est ci yeneen i thème di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di wax na bu baax saxul ñu ko ci woon wax mais ben commentaire laa gis benn waaye pour tuuti baax leen ziar mais c'était pas l'objet du débat euh, de du live mais bon voilà xaj na ki dugal nañu ko ci c'est bien aussi c'est l'exigence il faut être extrêmement exigeant moi je vous invite à l'exigence sénégalais na am pardon na am taxaw temm lu di wax taxaw temm exigeant bu leen bàyyi kenn di leen pamti pamti bu leen bàyyi ñi yaakaar na ay parce que bu ngeen wu Macky la kii Idrissa Seck bi li ñuy def teg ko ci dañoo jàpp ne yéen exigeant mais tant que yéen a ngi wax di yóbbu te léegi waxukaay am na mën ngeen a wax ñëpp dégg leen kenn ko ne léegi li nga bëgg wax mën nga wax soxla woo télé soxla woo soyez exigeants, qu'on vous entende, on ne les laisse pas faire. Nous c'est ça l'exigence soyez exigeants soyons toujours exigeants il faut l'être avec Macky Sall il faut l'être avec bachelet Diaz mais il faut l'être encore plus même avec Ousmane Sonko demain au pouvoir on sera là on veillera on va guetter on, va l'accompagner mais ce ne sera pas avec les yeux son pied notre pied parce que li ñu bëgg moom moo petax guy ërgët xam ngeen ërgët xam leen ërgët xëy na amu leen ay pigeon ërgët taxaw ërgët rek yarkatu yarkatu petax yi xët yi xam nañ ñuy ërgët ërgët rek ërgët dem leen ngeen laajte luy ërgët Sénégal boo ko bëggee tabax koo jiite ku ne taxaw ci ginnaawam topp ci ginnaawam ërgët bu taxawee nga cos ci bopp bi rek petax bu góor bu bu petax bi jigéen bi waree neen nga topp ci ginnaawam du ko may jàmm di ko dàq acca acca acca pour lan pour mu dem ca tàgg ma neni loolu lañ tuddee ërgët nga gis ma di ko cof di ko dóor topp ci ginnaaw ngay topp ko ko may jàmm pour lan day bañ mu nen ci àll bi dafa war a nen tàgg ma la war a da koy topp rek petax da koy topp di ko cof di di ko topp ko may jàmm sonal tàgg ma toog fa dem neni loolu lañ tuddee ërgët bi tamit koo ci namee Ousmane Sonko ñëpp ci topp ci rek acca pëyi pëyi baax na bi yàlla doo bàyyi kenn loolu mooy exigence xam li nga topp seen ginnaaw ërgët ñaam ñaam jaay petax wala am petax xam nañ luy ërgët parce que ne jamais à Dakar soo ko fekkee mi ngi ci avion yi ci hôtel de luxe yi restaurant yi dajale ay cagaam di dox baax di tudd di mairie Dakar ay fay baax yooyu lay dox voyage rek di noos nga man je suis en mission dafa am ay projet dama def deful dara bon allez bonne soirée à vous le combat reprend koor gi jeex na suba ñu teg ko ci Ouakam ngor yoof wakam ngor yoof yok na ci kambareen wakam ngor yoof yokku na ci dina ci gore barni gore te tëngéej mbaaw yarax lébu yi yéen a dëkk ndakaaru moom ko xajal ci nit ñi ñi ngeen xajal dem ba bëgg leen a génne ndakaaru jël suufu ndakaaru bépp jaay ko ba noppi la ngeen dese ku si néew ñu ne dañ koy nangu ci yéen lébu yi ndakaaru gépp jóg leen ñu taxaw ñu ànd ndox ak doole gatu ndakaaru ñu ànd ak yéen ñu xeex Macky Sall ak nguuram bi ñu jóge fi jaay nañu ndakaaru gépp jaay géej gi yëpp jaay lépp li ngeen desee kus néew lañ dañ koy nangu gone yi duñu am fuñu féexloo amu leen école amu leen dara Macky jaay na lépp naar yi jaay lépp tubaab yi lépp yëpp na ngeen jóg Wakaam Ngor Yoff Cambérène Jàmmalaay Bargny Tëngéej lay waxal de yaraax jóg taxaw jóg leen taxaw jóg leen ñu xeex bis na ba suba tay la korité jeex na bu suba nañ ko ci wat na sap sap sap sap ci Macky sal ñi ngi leen ñu leen ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne fanaanu jamm bu suba ñu tégal ko ci gassa gàsta gi amul teggi tànk amul dellu ginnaaw wasalaam ba kayaar ba ndal ka kayaar rek fofu yëpp na ñëpp jëm waaw ah. na ñëpp jóg la lay wax ah babagay ag ngur àgg nguur petit bi yep lebu ya fa nap kat yeen ñep jog leen ba ngur ba ba ngay àgg na ñep jog na ñep jog ba kayat liko tambale kayat top geej gi ba ba ngay na ñep jog kayar ba ngur la la wax ci tefes gi dekk bu fa nek jog leen kayar ba ngur jog leen gatsa gatsa rek parce que Macky gatsa gatsa la xam Tuhan am legat să dați amul leneen man góoma leneen lu garsa gas lu la jéem naa doxul ak moom garsa garsa rek bàyyi naa lépp léegi garsa garsa laa gën ah taal ngeen génn këru farba ngom doyul ak am na yeneen ak du moom rek am na leen

jàpp kaso yi bu mu tax ngeen teggi seen tànk de na ñëpp jóg ñu xeex